الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين مبكي في تيو اك يدغ سونو كادو فنيو مانا نيك نيغي لين نيو دي لين واخ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته نيغي لين دي ندوكال بو باخا باخ سي ويرو ماغ وي نيو نيك دي لين ديلو دي ندوكال ايتام سي غودي ييغا te suñu borom subhaanahu wa taala digge ci digg yu am solo digge ci ak ngoreel ca àjjana yàlla nañu ko suñu borom defal te nangul ñu mbooleem suñu koor ak mbooleem jaamu yàlla yi ñu def ci biir koor gi yépp euh, te màngal ñu xéewal yi nga xam ne digge na ko ci dundal fukki fan yu mujj yi te ñuy séentu ci moom bu baax a baax laylatul xadr gi nga xam ne ay ngëneel yu baree baree bare la am yàlla na suñu borom def lépp muy xéewal ni ñu ko baaxoo defee nag daayira muxaddamatul xidma commission culturelle bi nekk ci biir ni mu ko baaxoo def ci bi weeru koor wi tàmbalee ba léegi muy jataay waxtaan jataay xam-xam yi nga xam ne moom lay amal di ko dundale weer wi te ni ngeen ko xamee ñu xaajoon ko ñetti xaaj muy lenn li doon ay tomb yoo xam ne fukki tomb ak ñeent lañu waajal yu ñu war a waxtaane ci biir weer wi waaye itam am ci biir juróom-ñetti fatwa te mooy jataay yi nga xam ne ci la ñuy jukki laaj yi nga xam ne mbokki jullit yi dañ ko doon laaj mu aju ci seen diine ñu war ko ca war ko caa leeral waaye itam am na ci biir juróom-ñetti jataay yoo xam ne ay duruus la maanaam ay bind yu ñu war a jàngat la ren nag dañoo jëloon àq yi tasaare ko ci juróom-ñetti jataay yooyu suñu jataayu tey bii nag dafa mel ne ci jataay yooyu la bokk mu yi nga xam ne ci lañ war a waxtaane àq yi kon ab bind lay doon boo xam ne incha allahu taala fas yéene nañ koo ànd ak yéen ki ñu koy defal nag mooy jëmm ji ci sama càmmooñ ñu koy wax sëriñ Fall Bousso Xasan sëriñ bu so moom sëriñ bu Bousso doonatul ku ñuy xamleeti ci jataay bii ndax yaakaar naa ku fekke woon ci njëlbeenu koor gi ci fukk yu njëkk yi gis nga tomb bu am solo bi nga xam ne defoon na ko doon ko jàngatal ak ñun te mu aju woon ci li ñuy wax laïcité mu doonoon tomb boo xam ne mbokk yi ko doon topp jëriñu nañ ci bu baax a baax am nañ ci itam ay leeral yoo xam ne ubbi na seen bopp ci laïcité ba nga xam ne amatuñ ci lu ñuy laam-laamee xam nan lañ mooy dëgg-dëgg laïcité ak nuñ koy dunde fii ci réew mi suñu jataayu tey bii nag àq yi nga xam ne moom lañ war a ànd ak moom mu jàngatal ñu ko mooy li ñuy wax xuquuqu wulaatil umur te mooy àq yi nga xam ne njiiti diine yi wala njiit yi nga xam ne ñooy jiite ci wàllu àddina am nañ ko digg seen diggante ak ñañuy ñuy jiite loolu mooy tomb bi nga xam ne moom la fas ak ñun tey jii ci suñu jataayu tey jii kon ginnaaw bi ñu santee gërëm mbooleem ñi ñuy topp ci tasukaayu xabaar yi ak fuñ ñu mën a nekk euh, duñu def lu dul jox ko kàddu gi sëriñ fàll buso so mu nuyoo daal di ci waxtaan wi di ñaan suñu borom defal ko tawfiq te defal ñu ko kon sëriñ fàll bismillah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 di ndokkel ñep ndokkel suñu bop ci bis yu mag yi nga xam ci lañ toll ci lañ toll te muy fukki fan yi mujj ci wéru koor di ñaan ci barke ramadan ak fukki fan yi mujj ci wéru koor suñu borom limu daxañ ci nuyo bobu ñu waxon léegi te moy jamm ak yermande ak barke suñu borom ful ko ba mbari lool mu tassare ko ci àddina rawati ne rew yi nga xam ay jullit ñoo fay dund ne suñu rew mi di Senegal rawatina suñu gox bi ñu dëkkee ñun di ndokkeel sëriñ laay ci ni mu laytaayal waxtaan wi ak waxtaan yi ko jiitu woon di ndokkeel mbooloo mi nga xam ni tam ñooy saytu jataay yu mel nii ndokkeel ñëpp ci biis yi nga xam ci lañ toll ni ko sëriñ Seex naa waxe ni ko sëriñ Ablaay waxe dafay mel ne bu ñu doon xool àdduna bi jamono ji ñu toll nii li ñu koy gën a xàmmee mooy jamono ji la yoo xam ne nii ay jafe-jafe da cee bari dañuy tudde ay crise te mooy maanaam jafe-jafe yoo xam day dab nit ñi moo xam ci wàllu koom-koom la wàllu alal wala ci wàllu ay jikko wala sax ci wàllu yu bare bari foo xoole daanaka da nga wax ne am na jafe-jafe boo xam nit ñi ñu ngi koy jànkoonte ak moom waaye rawatina suñu réew yi di réew yi jullit tey ku nekk ñun xam nga ne li fi tuuru ci deret njaboot yi fiy tasaaroo xam-xam bi fi sànku alal ji fiy yàqu bari na lool te diggante jullit neen la loolu kon ci jafe-jafe yi gën a màgg yi nga xam ne nii jullit ñu ngi koy tund jamono ji ñu toll nii ci la bokk loolu nag fu ñu dajee ay jullit war nañoo ñaan sunu borom surtout rawat na bu ñu nekkee ci barabu ñaanukaay ñu ñaan yàlla mu defal ñu tawféex ba jullit yi génn ci situation bi nga xam ci lañ nekk te muy situation boo xam ne nii ñëpp la lu yërëmtalu la lu doy waar la ci déggeenu lislaam lu mat a jëf la tam ngir mu jóge fi raxas bam defaraat lislaam ba nga xam ne nii dana méngoog na mu wàcce woon ci sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ma dalika kon bu ñu nee ay jafe-jafe la ñuy dund foo xool rek mën ngaa làmbul gis ne am na façon xeetu crise boo xam ne nga ko fay dund ba ci li ñu war waxtaane tey jii jafe-jafe bu mag la muy li ñuy wax kilifteef kilifteef ku nekk xam ne ne lépp nekk ci jafe-jafe waaye kilifteef bokk na ci li gën a nekk ci jafe-jafe kan moo war a nekk ci kanam nit ñi nun koy tanne. yan melokan moo war a ne ci nit ki bañ ne kii moo war a nekk ci kanam nit ñi ban relation moo war a dox diggante ki jiitu ak ki topp ci gannaawam kii toppi ak ki ñuy topp lu nu war a seq yooyu ay laaj la yoo xam ne nii ku nekk war nga ko laaj jamono ji toll nii ndax jamono joo xam ñu ko gën a ràññee na ci li ñuy tuddee nang ñàkk nangu kilifteef bokk na ci li ñuy xàmmee doxinu nit ñi jamono ji ñu toll nii wala ku nekk bëgg nekk sa kilifa di ko wutal ay yeneen tur yoo xam nga koy tuddee bokk na ci li jafe-jafe mooy ne li nu war a séq diggante ñi yilif ak ñi ñu yilif day mel ne relation la boo xam ne nii dafa leerul lool moom it xeeti yépp ci yem nag boo demee ci fekk da nga koo jël ci wala nga jël ci bi li a leer ci diggante ki ñu yilif ak ki li ci leer dafa xaw bari lool lan moy kiliftef ak num war deme demee ki yilif ak ki ak ki yilife ndax dañuy jàpp ne kon ki yilif da fete kaw ki mi yilif ci ci deret wala da koy fete kaw ci mu xel wala da koy fete kaw ci waccu way motax mu yilif ko wala leneen tax mu yilif ko ndax aw déggin na ki yilife warta jàpp mukk ni da gën nit ñi wala da leena gëna am xel wala da leena gëna yew motax mu yilif leen ki ni yilifit warta dégg ne man kii ma yilif dama ëppum xel wala dama gën a wala dama gën a am fulla wala yu mel noonu ndax loolu bu ñu ko déggee noonu bokk na ci jafe-jafe yi ëpp solo ci jamono yi ñu dund ci wàllu kilifteef ba tey ndax buñ ne kilifteef ndax la di ñuy nit mu koy terloo wala wartef la wu ñu gàll nit muy responsable magamak. mag a mag loolu lu leeru ci la bokk te da nga gis buñ ne diw moo toog barab sàngam nga gis ña ko ñëpp dañuy kontaan gis ne ñoom maanaam teraanga ñëw na seen kër te loolu fépp la am bu dee ci diina ji am na ci bu dee ci àdduna bi am na ci ba nga gis ñu jàpp ne kon liggéeyum ndey lañ koy jàppe ñenn ñi di ko jàppee ne loolu xewalugul yàlla andil ndax noonu lañ ko war a déggee ndax kilifteef teraanga la juñ tegal nit ki ci loxoom wala responsabilité buñ gàll nit ki loolu tam bu leeroon dana baax ci mbir ndax kilifteef ak yeewul ak ñàkk yeewu ndax damaa gën a yeewu nit ñi moo tax ma yilif leen wala leneen mo tax ma yilif leen loolaat taxul mu leer lool ndax da ngaa gis da gis kilifte fi bare bare ñoom dañuy jàpp ne nit ñi dañ leen a gën a yeew moo tax ñu yilif leen léeg sax da ngay dégg naan nit ñi boo nitee kenn dootu leen yilif moo tax léeg-léeg da ngay am lox da nga leen koy xëpp mel ne ku leen di gëlëmal te loolaat bokk na ci li tax jafe-jafe dégg fi am kon yëpp ay ay laaj la yoo xam ne ni kuy jàngat mbirum kilifteef jamono juñ toll ni war nga koo laaj te ku ko tontu ku nekkit dana am lu bare bare loo xam dana leer sa digganteeg ka nga nekk moo xam ki yilife la moo xam ki ñuy yilif kon nag bu ñu nee jafe-jafe ngi noonu jafe-jafe la boo xam ne nii jafe-jafe féetewu ko kaw ndax moom dong dong doy na sëkk bu nu ko fajtalul doy na sëkk ngir jax-jaxal dundin doomu aadama ci kaw suuf ndax ku nag xam ne ne àddina bu ni muy doxe mooy ñu mooy ñu jiitu ak ñu topp ci gannaaw mooy dox kilifa ak ñi ñuy mooy dox bu loolu amatul rek àdduna dafay daal di jaxasoo réew mu manti doon tey bu ñu ba kenn jiiteetu ko rek yëf yi daal di jaxasoo te dañ ci gën a ñëw ci kanam tu jox ci ay leeral kon bu ñu jëlee baatub kilifteef ne nañ ko waxtaane ak yan àq wala yan yelleef lanu ko ameel ñun ñi nga xam dañ ñoo yilif yan yelleef lañ ko ameel loolu jàngat kon tomb la boo xam ne nii jàngat ko jamono ji toll nii lu am solo la comme ni ñu war a jàngat tam yeneen jafe-jafe yi nga xam ne nii moom la ñuy jànkonteel buñ ne nañ ko jàngat nag ci ni ko lislaam gisee da fay a am solo ndax l'islam moy njangale mi nga xamni mo jëgé suñu borom jaar ci yonente bi ñëw ci ñun muy njangale mo xamni momit bayyi wu dara ci walu aduna ak ci walu alakhirah lepp lu nit di jankonté ci aduna bu ñu jangaté l'islam dëgg-dëgg ci façon bañ ko wara jangaté mën nañ ca génné yoon wo xamni buñ ca jaaré dañ am solution ci loolam tay bu ñëwoon ci wàllum koom rek jafe-jafe bi ëpp solo ci aduna ci walu kom jamono ji li waral moy jëflante gu tagu ci riba te riba moom ku nekk xam ne li ci lislaam jàngale ak li mu ci wax buñ ko jëfee woon rek fi ne maanaam ñu wax crise économique dootu am kon ci àddina war naa bañati am ci àddina bi ndax wàllu riba mooy li koy indi suñ ñëwoon ci relation sociale yi ñu seq ni ñu war a seq ñun suñ biir nga gis ne lislaam li lim ci dàq lépp buñ ko ci dàqoon buñ ko ci dàqoon jafe-jafe dootu am suñu biir bu nu fexoon tey ba li ñuy wax nifaaq te mooy ak naafeq mooy wane loo xam bokkut ak li nga gëm bu nu fexoon ba loolu jóg fi bu nu fexe woon ba worante jóg fi bu nu fexe woon ba naxante jóg fi kon nit ñaari nit dootuñ taxaw di xulo wala ñaari dootuñ sëq ay problème seen biir te loolu l'islam jàngal na ko baax a baax bokk na ci yooyu tam ba tey lu mel ne fu ñuy dellu ab delluwaay ku nekk xam nañ jamono ji ñu toll nii am nañu yor lu baax di woote am nañu yor safaan di woote am nañu yoru dara di woote kon day mel ne foo gestu ci sa wet gis ku taxawal mbir di woote doo xam ne muy woote lu mu doon loolaat lislaam am na lu mu ci jàng loo xam ne nii bu nu ko defoon moom it mbir ma dee daal di sotti mooy ku nekk la ngay woote jëm ci yàlla kese kese kese moo tax kon lislaam ay njàngaleem bàyyiwut genn wet goo xam ne nii joxewu ca gis-gis boo xam ne ni bu ñu jaaree daañ mën a taxawal am solution ci loola ba ci kilifteef gi ñuy waxtaane tey lislaam rëdd na ci yoon waxam bu ñu ca jaaree jafe-jafe dootu am ci diggante kilifteef ak ñañu yilif waaye nag ñu xam bàyyi xel ci ne lislaam yu bare bare bu koy indi principe bi lay indi maanaam cëslaay bi lay indi léegi nag mu des jamono ju nekk nanu koy dunde nu ñuy mën a fexe ba dëppale ko ak lislaam maanaam lislaam du sopp ko waaye jamono lañuy ñuy fexe ba dëppale ko ak dégginu lislaam mën koo dund loolu nag dafay laaj ñàkk am li ñuy wax jumut maanaam bañ a way deng ci benn barab ndax dañu wax ne al jumuut mawtun mu bakkir maanaam képp ku xam ne da ngaa taxaw benn place yëngatootoo bu fekkee dañu jàpp ni yaa ngi dundit nit ku faatu nga kon bir mu nek da fay dox doomu aadama mi xëy di soppi ko ay soxlam non lay soppi ko ay gisinam non lay soppi ko ay dégginam non lay soppi ko moo ngir l'islam mën nek diina jo xamne ni nak day valable ci jep jamon ak bépp barab day fek ñu mën ko deg déggin wo xamne ni dañ ko mën dund ci jamon juñ nek ngir waxtaan tom bobu nak ni lañ ko bëgg a tënkee kiliftef ñu bàyyi xel ci nag ci biñ ñu koy jox wulaat la ñu wax mooy ba jamu waali wala wali jamu awliya baat bi kon wolof la arab la ci sànn moo tax dañu jéem a gëstu ñoom baatu wilaaya ci arab bi ñuy firee ñun kilifteef fu mu jóge ak lu muy tekk dëgg-dëgg bu ñu noppee danañ wax kilifteef ci lislaam ci lu muy sukkandiku ci lan la ñuy sukkandiku ngir kilifteef mën a am maanaam wala bokk ka ñuy kilifa ci yan ponk la war a taxaw ngir mën a nekk kilifa bu ñu noppee waxtaan ci warteef yi nga xam ne nii moo war kilifa ak melokaan yi nga xam moo war a ne ci moom bu noppee waxtaan ci àq ak yelleef yi nga xam ne nii ñi ñu yilif war nañ koo doxale seen diggante ak ñi yilife maanaam ñi ñu yilife bu ñu noppee dañ waxtaan tuuti ci li ñuy wax al isyaanul madani yi te mooy fipp fipp fipp ñenn ñi di ko waxee di ko tuddee désobéissance civile maanaam nit ñi bu ñu demee ba nangootuñoo topp kilifa lu koy waral am nay sabab yu koy waral momi dañ ci tuddu yennat ngir jangate ko mbir mi bu ñu noppee dañ wax ci tomb bo bi mujj moy ñak kiliftef ban danger la am ak yeen resultat mo ci mëna juddoo ci biir askan ñak kiliftef bu kilifa amul lu ci mëna a juddoo bu ñu noppee door a tëj loolu mooy ni nga xam lañu fasiyé yéene tënkee waxtaan ni ma ko waxoon ci ben kon baatu wilaya te moy ñukay firé ñun kiliftef ci arab bu ñu nee waliya shay'a aw waliya alayhi walaaya aw wilaaya baat boobu boo ko tënkee araf yi ko tënk mooy waaw wal laam ak yaa waaw ak laam ak yaa mooy mooy moo ko tënk dañ ne buñ ko xoolee lañ cey mën a jële mooy ak jege ak jege ak jege bu ñu nee jalastu mi maa yaliga mooy damaa toog sa wet allah si yajlis mi maa yaliga mooy ki toog sawet wet ki méngoog yow maanaam ki toog sawet jege la kon loolu foofu la départ kon jage googu ñu bàyyi xel toujours ci ne maanaam ne kilifteef jage ki muy yilif loolu mooy cosaan bu ci amul rek léegi dafay am leen lu ci ñëw ko loolu mooy cosaanul baat mooy jege te mooy ci wolof sax dañuy wax méngoo méngoo mbir ku méngoo mbir day mel ni danga koy jege ndax da ngay taxaw moom bu ñu la yaa méngoo mbir sàngam mën nañ caa dégg yaa ko yilif wala yaa koy doxal day fekk nga jege ko léeg-léeg baat bi ñuy indi ko ci arab tuddi ko wilaaya kasra ko maanaam maas ko ci maas suuf gi boba dañu wax ne day tekki sultan sultan nak moy moy moy moy moy mooy pouvoir moy moy man-man bu ne ci loxol do madam wala leeg mu tekki aw reud plan boy tek wala mu tekki imara imara moy reud wi nga xamni dañ nan li lii sa kilifteef la nek wala nguur wala yu mel wala rew mi nga xamni ni sax ki yilif gox bim yilif léeg dañ koy tudde wilaya moy lam yilif ci bopam motax yeb ko buñ ko tënkee dañuy gis ne borom xam yi ko firi dañuy wax ne kilifteef ci arab baatu wilaaya ci arab te mooy firi kilifteef ci ñun bu nu ko waxee war nañ caa dégge kuy saytu tadbiir mooy kuy saytu war nañ caa dégge itam man-manu man-man ci biir ba li ngay saytu nga mën koo saytu war nañ caa dégg jëf te mooy nga man ba noppi nangoo jëfee la nga man ngir doxal li ngay saytu saa yu ñu xoolee kon ne gis ne relation bu mënti doon su fekkee saytu newu ca man manu saytu néwu ca jëfe man manu saytu néwu ca boobaa kilifa ak kilifteef dootu fa taxaw kon balaa kilifteef mën a taxaw saytu dafay nekk maanaam kii yilif day mën a saytu waaye itam day am kàttan gum saytoo bu amee kàttan googu ba noppi nag nangu koo jëfandikoo ca saytu la muy saytu boobaa la kilifteef door am ñett yooyu nag bu ci benn amee bu ci benn manqué te ci des am fa kilifteef dootu fa mën am ci misaal tey rek su fekkoonte ne mën ngaa saytu am nga kàttanuk saytu waaye nangu woo jëfandikoo kàttan ci saytu li ñu lay saytu loo dootoo nekk kilifa ndax dootu dootu dootoo fa nekk moo tax baat bu ñu ko xoolaat ci làkku arab ay maanaa yu barañ ci biir cofeel dana duggaat ci biir cofeel cofeel maanaam nit kilifa ak kilifteef ak cofeel dafa war am ci biir nusra te mooy nga wallu nangoo wallu nangoo wallu wallu mooy bu nit ki nekkee ci fu ñu ko war a walloo ñu wallu ko moo xam kilifa gi la wala kañ yilif siyaada tam da ci am da ci am li ñu wax souveraineté maanaam souveraineté mooy mooy mooy li nga am nga mën koo jëfandikoo kenn du la ci wax dara lii maanaam yaa ko moom mën nga ko jëfandikoo ci ni nga ko gisee kon yëpp da ci ñëwaat ci biir yooyu yëpp nag balaa am na am kon jege gi daf cay am cofee gi daf cay am miinante gi daf cay am kilifa am door a mën a nekk kilifteef door a mën a taxaw bu ñu delloo ci beneen téere boo xam ne nii moom tam gëstu na ci wàllu kilifteef bañ ca gëstoo daf ñoo wax nañu kilifteef mooy relation bi nga xam ne nii mooy lënkale nit ki wa ak ku dul moom ki mu bokkal di dund ci ñuy wax xayaat ijtimaaya wala ci wàllu politique wala wala ci wàllu nekkin kon relation bi tënkali bi lënkale diggante nit ak système ba muy dund wala nit ka muy dundal walla nisaam système ba muy dund loolu lañu tuddee kilifteef waaye nag ñu bàyyi xel ci ne ñoom ñi koy jàngat dañu gis ne léegi balaa mën a tudd kilifteef nag li ñuy wax alaaqat tawxiya daf ciy nekk maanaam coobarewu coobarewu balañ ko mën a tudd kilifteef dëgg-dëgg ak coobarewu daf ciy nekk maanaam nga coobarewu nangu ne mën nangu naa jiw yilif ma waaye su dee force kenn dootu ko tuddee kilifteef mën na am yeneen tur lay am kon balaa mën a tudd kilifteef day fekk nga coobarewu nangoo dugg ci mbooloo mi nangoo nekk ron ki ngi te wax ne mooy ki am kilifteef gi loolu nag mën naa nekk ak nit nit ne yow nga nangu ànd ak moom jox ko sabab wala mu nekk mbooloo nga nangoo nekk ca biir mbooloo ma mbooloo ma yilif la dox yi ne mbooloo ma yilif la wala mu nekk ab xalaat wala gisin ñu ne ñu ñëpp gisin wi moo ñu bokk yilif wala muy ab politique bu ñu doxal wala muy pas-pas bu ñu bokk waaye almuhim balaa mën a nekk kilifteef day fekk boo cay dugg da nga cey dugg ak sa tànneef da nga dugg ak loo xam yaa ko xool ba mu neex la nga dugal sa bopp waaye kenn forcé wu la ci kon forcé bu ci xasee am kilifteef dootu fa am coobarewu googu ngay coobarewu nag gis nañ ne moo tax ku nekk ci ron kilifteef ku nekk te yaa coobarewu ne ca ngir nga topp ndigalu ka la day yomb wala boog nga topp lam lay inspiration bi mu lay jox nga topp ko moom tam day yomb kon loolu mooy cosaan li ci olof ci ci arab baatu arab la wilaaya bu ko defee am na ci léeg ñu wax wali yi léeg ñu wax waali yi bu ñëwee wali yi moo gën a tënkaloog lis moo gën a tënkaloog sariya ndax bu ñu nee waliyul amri mooy ku mel ne waajur ak doom foofu waliyu la ñuy wax kooku nag jàmm bi nekk awliya léeg-léeg it mu nekk baat bi nekk ku ragal yàlla suñu borom wax in awliyaahu illal muttaquun maanaam booba awliya lañ koy jamoo kon baat bu ñu nee waliyu boo bëggee ni mbooloo mi awliya ngay wax bu ñu nee waali yi nag xëcc ko moo gën a jegeeg ñun li ñuy waxtaan te mooy kilifteef gi ñuy waxtaan ñun boobaa wullaat mooy doon jamoo mooy doon ñu bari loolu moo tax wali yi ñeen ñu ko jamu awliya ak waali jam wulaat xaw nañoo jege waaye am nañu wute tuuti kilifteef nag ci niñ ko gisee ba tey ci gëstu ay ay darajaat la maanaam ay degré la tàmbale ci sunu borom di wàcc baax si ci ñun kilif nga kilif ñëpp njëkk a nekk kilifa ñëpp mooy sunu borom subhanahu wa ta'ala moo tax wax ne allah waliyul ladina amanu yuxrijuhum maanaam ni mu ko wax ci alxuraan ne mooy kilifa wala moo mooy nekk ànd ak mooy méngoo ñi nga xam ne nii dañoo gëm suñu borom moo leen di méngoo di leen génne ci lëndam di leen ci ak leer kon kilifa gi mag gi ñëpp mooy suñu borom subhanahu wa taala moo tax kilifa goy topp da ngay bàyyi waale xel ndigali suñu borom yi ak i tereem ci topp ga nga koy topp su ko nekkee ci biir ndigal yi baax na su ci nekkul nag beneen gisin lañ ci am te danañ ci ñëw ci kanam kon suñu borom mooy kilifa ñëpp moo féete kaw ñëpp moo tax geneen kilifa goy topp nga war caa bàyyi xel kilifteef ak sunu borom googu beneen bi ci topp mooy kilifteef gi yonent yi am ci nit ñi ndax yonent yi ñooy ndaw yi nga xam ne ni ñoom la sunu borom tànn yenkeewal leen ay mbir wala boog message boo xam ne daf leen ko jox ñu war koo jàllale mu jox leen ko ñu war ñu koo indil moo tax ñoom kilifteef la ñuy taxawee ci ñun ndax ñooy ndawil sunu borom te dañuy wax ne al al marsul bi qadril mursil maanaam ndaw bu ñëwee dañ koy jàppe kem ka ko yónni dayo ka ko yónni moom lay yor moo tax yonent yi bu ñëwee kilifa la ñuy doon bu yàlla ne diis ñoom ñoo fay tegu buñ dee jàngate dañuy gis ne ñoom dong ñooy kilifa yi nga xam ne ni ci àdduna mën nañu jàpp ne seen kilifteef mi ngi jóge sunu borom subhanahu wa keneen ku dutub yonent kilifteef goo mën di yor dafa am fu mu jaar ba ak waaye jógewul ci yàlla direct loolu dama aw solo ci mbir yi ñoom dong lañ mën a jàpp ne moo tax bañ gisatul ab yonent dañuy wax ne kuy jëlee kilifteefam ci yàlla nekkatu fi kon ki fi nekk kilifteefam ci yeneen façon la koy amee te dinañ ñëw ci kanam tuuti. buñ ci jegee itam beneen degré bi ci topp mooy kilifteef gi dox diggante nit ak nit te bu ñuy waxtaan ñun waxtaan wi kilifteef gi dox diggante nit ak nit moo tax ñuy waxtaan. loolu nag mi ngi tàmbalee ci nit ki kilifteef gi nga am sa bopp yow sa bopp am na kilifteef goo am ci sa bopp. waajur wi la jur wala sa mag am na kilifteef gu am ci yow kii àtte ak ñi ñuy àtte kii àtte ki ñu ki ki nga xam moo jiite am réew wala moo jiite mbooloo mi am na kilifteef gu am ci gum gum yore kilifa diine gi ne ci dëkk bi tam am na kilifteef gu mu yore ñoom ñëpp na kon ku nekk kilifa nga waaye li leen di boole kilifteef ak sunu borom mooy ne sunu borom lim bëggal nit ñi mooy lu baax bëggalul kenn ab safaan kilifa tam balaañ koo mën a tudde kilifa day doon koo xam ne ni la muy bëggal nit ñi lu baax lay doon waaye du leen bëggal ab safaan suñu borom lu baax la bëggal nit ñi loolu borom xam-xam yi dañ cee bind lu baree bari inna allaha la yuridu shar taban loolu lu ñu waxtaane la lu baree bari lu baax la bëgg kon ab safaan ku ko am yaa ko am waaye suñu borom bëgg kon yàlla lu mu bëgg ci nit ki rek lu baax lay doon ci moom iraadatu shar wax nañ wax nañ ci lu baree bari kon kilifteef gu mën di doon day nuroog suñu borom ci bëggal gu muy bëggal lu baax ñenn ci ak ronam mu yilif leen moo tax bu ñëwee ci lislaam bu ñëwee ci thème bi waxtaana ko dana xaw a jafe rek léegi tuuti ndax am na tuuti wuutee ci kilifteef goo xam ne nii dafay tënku ci cosaani lislaam kese kese ak kilifteef goo xam ne ni moom lañu ñu tuddee xaakim ñun ab kiy àtte wala kiy gouverner wala président wala yu mel noonu njiit daal ci tënk xaw nañu am tuuti wuute donte nag ñoo bokk principe bu ñu sukkandiku bu ñu wuutee tuutam waaye la leen tax a jóg lépp doo ko bokkale fii ne ki nga xam ne nii kilifteefam mi ngi ko jëlee ci suñu borom ak ki nga xam kilifteefam mi ngi ko jëlee ci askan wi ñoo ñoo bokk objectif ñoo bokk bëgg-bëgg te mooy liggéeyal askan wi ne seen mooy lu baax loo xam ne nii way yéene nañ koo def ngir askan wi nga xam ne nii ñoo ne seen gannaaw ñu jiite leen moo tax lu ñuy wax ci imam di ko wax ci waali manis na ko wax ci président am réew manis na ko wax ci ku jiite dëkk ma des ko wax ku jiitam département ak keneen ku ma gu mën di doon lañuy wax ci kilifa goo xam ne nii waali lañ koy tudde wala imaam mën naa walaabal ci koo xam ne nii mooy yilif am réew tax waliyul amr ko waxee ci di ci jublu kilifteef ñun mooy ki méngoo mbir mi terme la boo xam ne nii ci alxuraan lañ koy fekk ak ci xadis xëy na buñ ko waxee ne mooy mooy ki yore atte ci loxoom ki nga xam mbir mi ci loxoom la nekk mu koy saytu kooku la ñu tudd waliyul amr ñooñu nak borom xam-xam yi ci lañ bok ak ñi jité ci walu aduna borom xam-xam yi bu mbirum diine taxawé ñu war ko léral ñom lañuy tuddé ulul amr ñom ci ñom lañuy ñuy ñu leeral tay ci misal tay bu at ap at ne kep këpp ne jonn ñu wara xam li ci l'islam santané loolu ci borom xam-xam yi jàng l'islam ci ñom lañuy ñuy ñu léral ko tay bu am ab tawat feñon ci dëkk ñu bëgg xam lu mu doon dañuy dellu ci njàng wàllu médecine ñu leeral ko ndax ñoo ci ñoom ñoo ci uurul am ñoo ci méngoo ay mbir kon bu dee ci wàllu xam-xam boroom xam-xam yi ay kilifa lañ ci wàllu googu waaye nag léeg-léeg itam nag wëyal mbir jot ñu ne nangam ji lañ bëgg ñu wëyal ko ci biir réew mi wala nangam ji lañ bëgg ñu wëyal ko ci biir gox bi boobaa nag wëyal gi mi ngi nekk ci loxoon kilifa kilifa dëkk ba wala kilifa réew ma baa ci loxoom day nekk ñaar yooyu nag du duñu wuute maanaam diine ak àdduna du ñaari mbir benn mbir rek la xëy na bu ñu ko wax di ko détaillé nii dañuy bëgg mu gën a leer waaye du du ñaari mbir benn mbir rek la moo tax menn mënu cee dem bàyyi morom kon kilifteef gi yore wàllu kilifteef ci wàllu àdduna tey mooy wëyal luwaaye ak règlement yi nga xam ne nii borom xam-xam yi gis nañ ne askan wi ci yoon wi la war a jaar buñ ko xalaatee ba noppi ba tëral ko ba noppi moom ci loxoom lañ koy teg mu wëyal ko moo tax mooy am pouvoir pouvoir ci loxoom lay ne moo tax léeg-léeg mën na mu sañ a jëfandikoo loo xam ne nii keneen sañ ko jëfandikoo ci misaal tey kilifa mën naa joxe atte ne diw nañ ko rey ci misaal ñu rey ko te dara du ko ci fekk ndax mooy kilifa waaye bu keneen defoon moom yoon dal ci kawam ndax du kilifa kon bu ñu xalaatee ne diw bu defee nangam nangam rey daa jaadu ci moom diw bu defee nangam ak nangam dóor daa jaadu ci moom diw bu defee nangam ak nangam tëj dafa jaadu ci moom bu ko tënkee ba noppi nag ci loxol attekat bi lañ koy teg ne ko wëyal ko defee moom moo koy wëyal te dara du ko ci fekk moo tax loolu nga loolu am li ñu te violence boo xam ne ni état moo ko sañ a def waaye keneen sañu ko def ndax moom moom lañ jox doole ji ngir mu wéyal bu ko defee nag kilifa nag bu weesoo ñi ma tuddoon te mooy kilifteef ak sunu borom ak kilifteef gi yonente yi yore jëlee ko sunu borom geneen kilifteef gu mën di doon am na fondement am fu ñu koy teg kilifteef nag ci lislaam bu weesoo jëlee moom fi ñu koy teg mooy ci li ñu tuddee compétence asaasul wilaayati fil islam mooy al al kafaa mooy nga man man man li ngay def nga man ko loolu mooy asaas bi duñ xool ka daq julli ku dëkkul ki dàq woor wala ki dàq na déedéet ki man te maandu moom mooy fondation bi ci la ñuy tënk kilifteef man te nag bu mënee te maandu nag kilifteef gi mu am mi ngi koy jëlewaat ci nit ñi kilifteef ak doole ji mu am mi ngi koy jëlewaat ci nit ñi fekkit nit ñi nangu ànd ci ak mom ci li ñuy tudde ahlul xel ahlul aqd wal xel ànd ci ak mom ahlul hal hal wal aqd nak wal aqd nak moy bu ma ko doon wax jamono ñu toll ni danaka sa réew tëg li ñu wax parlement manam manam député yi sa réew ñoom ñooñu ci jamono ji ndax bu ñu delloo ci ko gis dañu wax ne bu ñe ahlul hal wal aqd ñi fasaka fecc moy ñom ñi wara fasaka fecc moy ahlul hal wal aqd ñoom dañu wax ne ñooñu ñooy bu ñu doon tànn nit ñi buñ njëkk ñi gën a jub ci nit ñi bokk ci ñi ëpp xam-xam ci nit ñi bokk ci ñi gën a maanu ci nit ñi bokk ci ñi ëpp pas-pas ak sellal ci nit ñi ñooñu la ñuy boole ci groupe tudde leen ahlul xal wala aqd nooñu nag bu fal kilifa jotee ñooñu ñooy fal kilifa moo tax bu ñu ko bëggoon a jegeel ci déggin wu wu ñu gën a mën dégg ñun dañuy wax ne ci doxinu jamono ji léegi ñaari façon régime am na mën na ko ëpp waaye am na ñaar am na régime boo xam ne nii régime présidentiel lañ koy tudde ak régime boo xam ne régime parlementaire lañ koy tudde régime parlementaire nag moo gën a jege lislaam ci régime présidentiel li leen wutale ci misaal tey suñu réew mi ñun régime présidentiel la ñor njiitul réew mi askan wee koy falal seen bopp di ci li ñuy wax suffrage direct maanaam dañu dem wote ku nekk dem wote ñu fal ko kon ñëppay fal ñi xamul ñu xamul ñëppay fal moo tax léeg sax mu indi jafe régime parlementaire nag bokk na ci lañ koy xàmmee maanaam nit ñi dañuy tànn bu ñu tànnee ne diw moo toogal tuubaa ca parlement bi diw moo toogal diw moo toogal ñooñu bu ñu leen tànnee ba noppi ñoo ñooy daje fal kay jiite réew mi boobaa nag ahlul xàll wala xadd nag ñooñu leen ñooñu ñoo ñetti député mooy député waaye nag député ba kooka nag ci lislaam day fekk mu xam li muy def nekk ku maandu nekk ku am ixlaas nekk ku am pas-pas gëm li muy def bokkut ak suñu gaay yi nga xam ne moom leneen nga ñu fal koo xam ne ni ferul ijji wala koo xam ne nii du ko neex rek la fay nekke taxul ñuy wax waaye su fekkante ne fal nañ ñu mel noonu te gox bu nekk tey Touba gi bu ñu newoon tey nañ tànn dañoo bëgg tànn ñi nga xam jàpp nañu ñoom mën nañoo toogal askan bi ca député yi te bëgg ñu dëppook ñoo xam ñooy tànneef la ñu doon ci dëkk bi xamante ne suñ biir bu ñëpp tàllalee seen loxo xamante ñu ñu suñ biir ñun dañu xam ne diw ñuy kat bu fa demee moo fa gën a yàlla diw loolu lu yomb la loo xam mën naa waaye nag léegi fal fal gi ñu façon bi ñuy falee député yi moo jaarul yoon waaye su doon jaar yoon ñoom bu ñu dajee mooy gën a jege lislaam ndax ñoom dañuy tudd ahlul xal wala aqd kon nag ñooñu nga xam ñoo amee fas ak fecc bu fal jotee ñoom ñooy fal kii jiite askan wi buñ demee ba gis ne folli ko dañ ko war a follit buñ ko dee folli folli ga ci ñoom lay jaar kon ñooñu war nañu ne xàmmee ci ñu doon ñu am expérience lool ñu xam li ñuy def lool bari jaar jaar xam lu baree bari jaar-jaar yi àddina tam yar leen ba yu baree bari dootu leen fàbbi mu ngoog ñu xamit yi nga xam ne nii ñoom moo tax ñu teg leen foofee ñu xam ko ñu xam ne lu jubal askan wi teg leen ci yoon moo tax ñu teg leen foofee loolu nag bu ñu ko xamee ñoom bu ñuy jël décision ñoom ñooy yoonal boobaa nag ñoom ñooy yoonal lépp luy luwaat ci ñoom lay jaar bu ñu ko yoonalee ba noppi nag mu door a jàll buñuy tan njitum rew tam mo ci ñom lañu jaar ñu tan ko bu ko defé kooka nak buñ ko xasse tan nak mom lañu ñu wali wala hakim wala rais wala ya xam ñu ngi tuddé kon buñu ahlul hal wal aqd moy ñooñu aqd moy système bi système bi nak buñ koy teunk lépp lu nit ñi soxla wo dañ koy teunkal ci biir lépp lo xam yitteel na dox yu askan day na ci biir mo xam ci walu politique la ci walu administration la walu législation la ak lu mënti doon nit ñi di ko soxla woo dañ koy tënkaale ci biir xàqd boobu fas-fas bi boobu xàll bi nag mooy suñ demee ba gis ne ñoom kii lañ tënkoon teg ko fi moom tënk nañ ko waaye dem nañ ba nekkatul lu baax ci askan wi boobaa dañ koy firi fasaat ko buñ ko fasee jox ko nit ne ko doxalal tam ñu dem ba yàgg ñu gis ne kii kat nam koy doxale bokkut ak ni mu war a dañ koy firi fasaat ko wala ñu jële ko fa teg fa kon loolu mooy mooy moo ñoo ñooy fal ñu nag kañuy fal dañuy bëgg ñu tànn koo xam ni gis nañ ne maanute ma ngi ci moom man-man mi ngi ci moom buñ koy defit dañ koy def ci wif xam mabda shura diisoo moo tax baatu diisoo ñëw ci alxuraan ay yoon yoon mooy ne mbir mi dañ koy diisoo bu ñu la falee ba noppi téewut na tekku ne yow da ngay nekk foofu def la neex waaye léeg nga diisoog askan wi ci li nga bëgg a def diisoog askan wi ci li nga bëgg a wax ak ni nga bëgg a doxale daf cay am kon ci foofu ndono amu fi solo lool donte nag ndono am na wàcc wàccuwaay ci kilifteef ci lislaam am na kilifteef ci lislaam yoo xam ne nii ndono moo la koy jox ci misaal ki nga bokkal baay mu mag la bu la magee rek sa kilifa la waaw kooku loolu loolu ndono la waaye nag bokkut ak kilifteef gi ñuy wax ñun foofu nag kon bu ñu ko xoolee dañuy gis ne lislaam dëppoo na feek système yi ñuy dund ñun mooy ne kilifteef ci lislaam ba fi yéen salaasam di bàyyi ko néewaloon kenn na jiite jullit jullit yi ñoo xool dëppoo ci tànn Abu Bakr Sadiq radiyallahu anhu mu jiite ba fi jógee noonu lañ defaat ci keneen defaat ci kon kilifteef guy jóge ci yàlla moom ci yonente bi la yemoon kon keneen kuñ fi jiital dañ laa am luñ gàlloog yow moo tax ñoom bu ñu leen jiitalee dañ ñëw ci kanam tuuti am na lu ñu daan xam kon maandute mooy adala mooy justice mooy ponk bi njëkk ci kilifteef moo xam gu lislaam la moo xam geneen la bu fa dandoon ak kilifteef dootu fa am kon bu ñu tànn nit ngir mu jiite te googu la ñuy njëkk xool ci moom moo tax dañ gis ci jeexit ci waxi wax waxi salafu saali fu ñuy waxee ne nguur mën naa ànd ak kéefër yàgg lool maanaam kéefër mën naa ànd ak nguur nguur gi yàgg lool waaye nee ñàkka ñàkk maandu tooñ nee na nguur gu mu àndal nguur ga taxaw kon ñu gis ne maanaam foofu kon baatu maandu mooy liy tënk nguur mooy liy tënk pouvoir mooy liy tënk kilifteef ci xel loolu la gën a nangu ba tey itam lislaam loolu la nangu ndax lislaam ak xel du ñaari mbir xel mu set moom lépp lu mu nangu lislaam du ko bañ lislaam ji set kese kese lépp lu mu nangu xel mu sel du ko bañ ñoom ñaar du ñu wutee moo tax ci biir gëstu gis nañ ne ñu wax ne kilifteef ci yéefar bu maandu ku dul jullit te maandu mu yilif moo gën jullit bu maandu wul yilife loolu gis nañ ko ci ay mbind yu bare bare ñu mbind wax ne ñu wax ne bu ñu naree tànn ab jullit boo xam ne nii maanduwul day tooñ nit ñi di leen agré di leen tooñ di jalgat seen ax nee nañ ñu tànn ku dul jullit te maandu moo gën moom la ñuy jiital kon ñu gisee ne maandu te moom mooy ponk bi njëkk ci kilifteef bu dee kilifteef gi ñuy waxtaan ñun bu ñu weesoo kilifteef këleem kon sart bi njëkk ci ci ahlul xal wala aqd te mooy député yi bu ñu tànn kilif kilifa googee bu ñu koy tànn sart bañ cee njëkk a xool mooy maandu bu mando ba nopi nak nu xol ci xam-xam bo xamne ni dana tax mu meuna joxe lañ ko dénk buñu delo ci kuñu wax sahra wardil maqtul mutasawwif kabir la manam maanaam sufyanke bu maga a mag la ku kéemaane la sax dafa bindi wax ne ñet nit ñet ñett ngi ni day wax al mutawakhil fi taalluhi wal baxs al mutawakhil fi al baxsi wal wal mutawassit fi ta'alluh adimul baxsi wal mutawaxil fi ta'alluh ñett yooyu nee na moo am ci kilifteef nee na bu ñu koy tànn buñ mënee am ki nga xam ne nii daa sell lool gëm yàlla lool maandu lool te bari xam-xam lool nee na kooku mooy maxtaar buñ ko amee kookoy moo ki baax nee na suñ ko mënta am nañ wut ki nga xam ne nii maandu na lool te am tuuti xam-xam buñ ko mënta wut buñ ko mënta am nag nañ jël ki nga xam ne nii maandu na te amul xam-xam waaye nee na buñ jël ki nga xam daa am xam-xam rek te maanduwul nit ku am xam-xam lu yàqu ci àddina moo ko yàq kilifteef buñ ko tënkee ci xam rek teg fële côté maandu gi lu yàqu loolaa koy yàq moo tax maandu maanaam maandu ci biir mi mooy ponk bi njëkk ci kilifteef ci njàngalem lislaam ci li ñu gëstu may tafan tax maandu ko bu amee mu am xam bi bu mën a doxale mbir mi loolu mooy li ca gën xam-xam baat li tax ñu soxla ko mooy day am yuy bees ku nekk ci bopp mbooloo mu nekk saa yoo xëyee danga gis situation bu bees boo xam ne nii dañuy ñëw gaaral la ko nga war koo lijjanti bu fekkee amoo xenka te mooy xereñ gu mat sëkk mbir moom bu la bettee doo ca mën dara xam-xam bi nga am nag mooy tax lu bees ci biir nit ñi jaaxal leen bu ñu la ko indee yow nga mën caa xàll aw yoon yoo xam ne nii ca la ñuy jaar te loolu la ñuy xaar ci kilifa. kilifa mooy bu mbir mi ne kët ne jonn ñëpp jaaxle moo fi sës bu ñëwee mooy tracé fi ñu war a jaar waaye nag léeg gis kilifa gu ko ma matut am na ci lu xaw a xorom kilifa gu mag goo xam ne ni njiitum réew loon jafe-jafe bu mag am ci réew mi ay nit blessé yu baree bari mu dem tiim leen ci hôpital ba di jooy moom kon gannaaw mooy jooy kon ñi muy def ni ñuy def kilifa du jooy warut a jooy fa moom warut a jooy lu mën di xew ma dafa war a dëgër ne fii ak fii la war a jaar nga ñëw pour pour pour laal yëg-yëgu nit ñi génne say rankoñ ak yooyu te yooyu dafay am ci nit ñi léeg-léeg day gis kilifa yi dañuy jëfandikoo yooyu te loolu day manqué ak kilifteef bokk ci kilifteef kilifteef bu ñu ci moom loolu bu loolu amee tam bëgg nañ mu doon koo xam ne nii ay cëram day mucc maanaam déggam day neex gisam day neex làmmeñam tam day boy day mën a wax ndax dafa bokk ci ñi soxla ci nit kilifteef kilifa il faut nga mën a wax mën a communiquer ak nit ñi bu bu amee gàllankoor doo dégg wala doo gis wala sa sa sa kàddu mënta génn waaye da am jafe-jafe ndax da am loo xam danga nga koy war a jàllale te doo ko jàllale moo tax cër yu mucc maanaam cër yu mucc bu ñuy tànn kilifteef war na caa bokk war naa doon koo xam ne itam saa yu bëggee jóg jóg maanaam koo xam ne nii saa yu bëggee jóg jóg ci ci sart kilifa la bokk ndax kilifa dafa war jóg maanaam maanaam maanaam mission la boo xam ne nii maanaam jafe-jafe féetewu kaw moo tax ñun léeg-léeg ni ñuy def jàpp ne maanaam imam balaañ la koo def da ngaa war a dem ba màggat ñu door laa def imam loolu wax dëgg yàlla ci déggin yu xaw a kii la bokk imam xale boo ko mën xale moo ko war a nekk fi la xiiqa parce que lim laaj ci effort bi ngay def yooyu ndawoo ko man am na wax ba fa àggee dootoo ko man moo tax dafa bokk sart kilifa mu doon koo xam ne nii yëngutu daf koy yomb saa yi bëggee jóg day mën a jóg day nekk koo xam ne itam gis-gisam dafay nekk lu xóot lu sar nga xam ne ñaare lu mu xool rek bu ci genné gis-gis même buñ ci and ak mom ci départ bi tam bu demee ba ci kanam daañu gis né lim gis loolu mo waru na am loolu ci kilif def ci bok waye tam war na doon ko xamni tam day nango joxe bopam ci ñarñu doom adamay ñarñu nit ñi waye war na Jambar jambar jambar jambar du nek kilifa kilifa du jambar jambar nak moy buñ ko xé moy bu def jotee nga def bu wax jotee nga wax bu jog jotee nga jog te boy nga def la nga war def boy wax nga wax la nga war wax te do ci sentu lenen loolu mooy ak njàmbaarte bokk na war naa doon koo xam ni itam fu askan wi fu nit soxlaa mu mën koo wall maanaam fu bët xonqe ñu gis ko waaw ñu wax ne dañuy wax dañ koy tàkkantal ne koo xam ne mooy aar nen bi aarum nen xam nga nen lu jafe lu jafe lu jafe aar la ndax lu ko toj dafa yomb kilifa war naa aar nen bi ba du toj mukk mooy doomu aadama bu nekk fu mu nekk nekk sa biir kilifteef war nga koy xam war nga war nga koy war nga koy aar motax ci kilifa yu ñëk yi nga xam gëmoon nañ seen kilifteef am ci kuma son taxaw wax ne fi ma tok ak fele di iraq nga xam ne jinni kilomètre wala lu ko mu ne bu fa aw fas doon dox ba fa kastalu ci yoon dama yegg ni sama responsabilité la ndax ma waroon defar yoonu ci defaruma ko fofu buñ fi agon yaakaar naa loolu ci yegg yegg bu am solo la ci nit ñi kilifa tam war naa doon koo xam ne nii bu am noon jógee ngir ñu mu def lu man ngir jañ ko ba mu génnaat ci biti yooyu kon ay mbir la yoo xam ne ni bokk na ci charte yi nga xam ne ni war naa ci nit balaa ñu ko tuddee ne moo yilif mbooloo mi kilifteef googu nag mi ngi déparé ci suuf ba ca këj a gën a kawe kuñ ciy fal ku nekk war nañoo bàyyi xel ci yooyu bu ko defee nag buñ ñëwee ci buñ ko tànnee ba noppi nag am na lu ko war moom warteef yi ñaari warteef la yoo xam ne nii beneen warteef bu ñëw day gàllu seen gannaaw bi ci njëkk mooy bu dee ci kilifa goo xam ne nii ña ko fal xëy na bàyyi nañ xel lislaam moo tax ñu fal ko kon bokk na ci la muy njëkk a saytu mooy aar diine ji lu aar diine ji mooy warteefam bi njëkk bu dee kilifa goo xam ne dañ koo fal ci ab constitution boo xam ne nii askan wi ñoo dëppoo ci ne lii charte la boo xam ne nañ ci àtte buñ ko ca falee warteefam wa njëkk mooy mu waat ne charte réew mi danaa ko sàmm danaa ko aar danaa ko wéyal duñ ñaar ñoom tam ba tey benn rek la alxuraan mooy dusturul lislaam ci biir dëstuur bi ñuy tënkit mën nañ cee mën nañ ko génne ci biir alxuraan mu nekk dëstuurul umma kon sàmm diine ji bu dee ki nga xam ne nii lislaam rek a tax ñu fal ko wala sàmm dëstuur bi te mooy sart bi nga xam moom la ñu moo war a àtte réew mi loolu mooy warte fi njëkk ci kilifa kilifa gu mënti doon nag ndax fi nekkin tey bu ñu nekkoon groupe nii rek kañ jiital dañuy tënk dañuy tënk ay mbir ne ko mbooloo mi nii ak nii lañ bëgg mu doxee ko léegi nag jiite ko boobaa nag moom charte bay tënk mbooloo moom moo ko war a wéyal da ko war a sàmm lépp lu koy xët da caa war a xar tànk tubayam bu sar sàmmee loolu ba noppi nag charte wala alquran jooju mom lay jëlaat sukkandiku ci ngir doxal politique askan wi manam buy doxal saytu askan doxil askan wi ma ngay sukkandiku ci charte bi ko teunk mo xam ab constitution la wala mu nek dusturul umata mooy alquran ci lay sukkandiku ngir lepp lu njariñul aduna man ko doxal bepp jéego bu mi jéego dana fexé bam deppok dëppoog charte boobu nga xamné ni mom lañ ko ci départ bi lepp lu muy nos di ko organiser day tënkook loola moom lañ santit gisiin wi nga xam dañ koo tënk mu nekk ay théorie tey sartum réew la ca nekk ay xalaat la léegi nag ki ñu sant ngir mu jëmmal xalaat yooyu ci kaw suuf mooy ko jiite bu dee alxuraan tam la tënk ci biir maanaam du ay xalaat waaye wax la joxam suñu borom moo ko wax kon lañ dénk kilifa ga mooy la alxuraan di digle ndigal yooyu mu dégg ak tere mu fexe ba praat ñu nit ñi di ko pratiquer ci kaw suuf kon loolu mooy warteefu warteefu kilifa ak sar mu aju nag ci sart ba nga xam ne nii ci lañ ko faral kon moom mooy taxwiil li nga xam ne nii am njàngale la wala li nga xam ne ay xalaat la wala li nga xam ne ay théorie la moom mooy fexe ba nit ñi di ko pratiquer kon mooy moo méngoo teg plan mooy teg plan mooy mutaaba mooy topp mooy fexe ba lu nekk bu waree am ñu amal ko moo tax moom it bu ñu ko tànnee noonu loolu na ngir mu wóyal ko ngir mu jéega doxal jéego yooyu dafa war a amee melokaan yoo xam ne ni day ne ci moom bi ci njëkk mooy xër nga xër ci mission bi ñu la dénk nga ne dinaa ko doxal maam nga nangu caa dem ba jeex tàkk bu ñu fal nga jiite waratoo gis sa bopp gisal rek yow mission bi tax ñu fal la moom ngay teg sa kanam mooy nga dem ca ba jeex tàkk ànd ci akuk sellal ixlaas ànd akuk sellal waaye itam ànd ak weddi sa bopp weddi sa bopp mooy dootoo gis sa bopp dootoo gis loo moom dootoo gis lu la neex dootoo gis la naqari waaye dangay gis li njariñu nit ñi nekk li njariñu mbooloo mi la jiital li mu nekk loolu rek ngay xool maandu gi waxoon nañ ko duñ ci ñëwaat waruñ koo fal tam mu dem ba mu yàgg mu gis ne man mii gars yi fal nañ ma mu dem ne tong ci kaw boppi nit ñi loolu tam du jëfi kilifa boo koy defee am na lu muy jur daañ ko ñëw daañ ñëw ci kanam kon waroo gis sa bopp ne dangaa féete kaw nit ñi moo tax ñu jiital la déedéet amna neen no wara gisse a gise gëmit ne fal giñ la fal ligéyum nday la wala añu dom dedet da ngay gëm ne responsabilité buñ la gal bo xam na ko wara doxal motax aw Bakr Sadiq radhiyallahu anhu bi fi sallallahu alayhi wasallam joge julit yep wala bok ahlul hal wala aqd depo ci ne nañ fal abou Bakr bam jité bam jité ku nek jàng na khutba bim def lam ko ubbe mo ayyuhan nas qad wullitu alaykum wa lastu bi afdalikum dañ ma tek sen kanam way gënuma len moom loolu la njëkk a iqraar loolu la njëkk a saxal door a jox beneen jéego muy jox képp kuñ fal loolu nga war a war def sa bopp da def sa bopp dañ laa fal waaye gënoo kenn yaa ngi ci kanam waaye gënoo kenn mën naa am sax ñu ne ci biir mbooloom xëy na ñoo la féete kaw ci wet googu boo gëmee loolu ba noppi di ko doxal nag nga nangoo diisoo ak nit ñi del diisoo kilifa day diisoo bépp jéego boo mënti jéego na nga ca diisoo diisoo gi nag yaa xam ni nga koy defee yaa xam da ngay tànn boromi xam-xam wala da ngay da ngay dellu ci mbolo mi waaye al muhim il faut ngay diso diso gu mën ci ñak tay bo diso bu noppit xalaat lu mu tuti tuuti bu ko xeb xalaat lu mu tuti tuuti bu ko xeb jël ko xol yow no ci mëna a nga jariñoo ndax dafa bok ci li li li li sagal la do ma dama léeg ñu wax dara nga li ay xalaat dong la waaw gis mu taxaw rek xalaat la won ci départ jumaa ji ñu toog ni fi ne li muy rëy rek li muy rafet rafet li muy valeur valeur ci départ bi ab xalaat la woon xalaat rek la woon biñ ko bi ko sëñ bi biñ ko xalaatee jébbal ay nit ñu exécuté ko mu taxaw tey nekk jëm kon bul xeeb benn xalaat lu tuuti tuuti bu ñëwee jëlal téye xool ci mën a jàngat ak loo ci mën a jariñoon waxoon nañ léegi itam ne kilifa day boole dëgër ak nooy dangaa war a dëgër war a nooy kilifa mooy ki nga xam ne nii bu tàngee jër moom day sedd bu seddee guy day tàng jër moom moom noonu lay doxe maanaam da war a boole nooy ak ak dëgër kilifa bu dëgëree ba dëgër kese kese du baax waaye bu nooyee ba ëpp itam day daal di nekk leneen moo tax Muawiya radiyallahu anhu ci njiitul jullit bokk mas naa wax wax ju am solo daa waxoon ne law kaana maa bayni wa bayna naasi shaharatun man qataxat lu ñu ñu tax mu ne in shaddawha wa in arkhawha saddatuha nee neena su fekkon li dox sama digg ak nit ñi ab kawar la kawar bo dagge sa bop neen su ko defee kawar bu dagg ko ñu ne ko tax dagg mu ne ndax buñ yolomalee ma xëcc buñ xëccee ma yolomal loolu mooy doxinu kilifa maanaam mbooloo mi sa gannaaw bu nu xëccee da nga yolomal buñ yolomalee nga xëcc bu ko defee mbir mi day dox waaye nag suñ xëccee nga xëcc mbir mi du dox buñ yolomalee nga yoromal dara dootu dox kon loolu tam nit kilifa day boole day boole nooy ak dëgër nooy ak dëgër bu dëgër jotee nga dëgër bu nooy jotee nga nooy moo tax du mbirum fula ak fayda waaye da ngay xool li njariñum nit ñi nekk nga cay doxe noonam ngir tënk loolu nag dañoo gis ci gëstu tam lettre boo xam ne nii kilifa ci kilifa yoon wi yoonu murit ñoo ko bindoon moo ko bind bindoon ko koo xam dañ koo faloon ci ay jamonoom mu bindoon ko di ko dénk yow noo war a mel ci diggante ak ñi la fal mën naa tudd tur bi suñu Mbàkke bu sa moo ko bindoon bindoon ko Ngalandou Diouf biñ ko falee mu nekk député Sénégal ca tubaab ya ba mu ko bindee bokk na ci li mu wax ne ko bi ko bindee da wax ne ko lii may wax nag day mel ne yàlla moo jàkkaarloo yow di la ko yàlla nee na yow Ngalandou moo la fal waaye nag sant ko mu ne noo koy sante mu ne ko da ngay fexe ba natt sa bopp jàppe sa bopp kenn ci ñi la fal bul jàpp mukk ne yaa leen gën loolu mooy bis njëkk mu ne ko jàppal ne kenn nga ci biir mbooloo mi waaye bul jàpp mukk ne yaa leen gën moo tax nga falu waxaat ko ne ko na nga def sa xalit ne dama laa jiital ngir xool ba xam nooy doxe daal ne ko man yàlla su ma tegee nit fi barab jiital ko mu wane boppam di wane cëram ngande ngandelu nee na ma toroxal ko nee na su ma jiitalee nit ci barab mu wàcce boppam woyefal boppam nee na ma yëkkati ko ba ñëpp gis ko kon ne ko bul bul wane sa bopp bul wonen ni la toll waye fexel ba soufel sa bop muy lu am solo waye na yëpp fekke da nga yelif nit ñi ba nopi yow foo nee tëll nit ñi daw do meuna def dara ci nit ñi kilifa nit ñi dañ ko wara a ay ñu bokku na ci tax suñu kilifa mënuñoo jeexital ci ñu lu bari moy ni ñun fuñu leen seeni daw ndax dañu di dañu dañoo niroowut ñun bu ñuy ñew nañuy solo du bokk nga ñuy solo nañuy waxe du bokk ak ni waxe lañuy war du bokk ak la war ciow la leen di top la leen di jitu ña leen di garder bo leen seeni da ngay daw fi la am na réew yoo xam ne nii mën nga faa toog ak ministre boo xam ne nii doo xam ministre la suñu waaye du ngeen wute dara waaye nag fekkee da ngaa dañ laa fal ba noppi nit ñi fu ñu la séenee daw loolu nooy defee nit ñi dootoo man def ci nit ñi dara moo tax mu ne ko fexeel ba jàppee sa bopp kenn ci nit ñi da ngay nuroo ñoom daal koy tegal ne ko fal naa la suñu borom ne ko fal naa la waaye nag nag ma sant ne ko ni may santeen mooy ne bul wor bul ma wor bul réew mi réew mi la mbooloo mi la fal bu war, wor wor mbolo nak moy nit ñi am ci yow yaakar nga ne len bu ngeen ma falé man na nang ak nangam ba nit ñi am ci yow yaakar ñu fal la defo lolam boba da nga wor nit ñi te wor nga suñu borom ndax da ngaa jëloon daalante woon ak suñu borom ne li buñ ma falee danaa ko def dal ne ko nak am rewit wala mbolo mu mënti doon na nga xamne ñing ko tabax ci égalité moy yamo yamo nak safana moy li ñu wax istibdadiya moy dictature mbooloo moo gis dictateur bu fa nekkee mën na faa yàgg waaye du fa mujj waaye nag maandu te bu fa dee dox mën na faa yàgg loolu te du fa jóg daal ko ñu tegal lu am solo ne ko nag bul nangoot ku la ger bul nangoot ku la ger ger nag dafa bari façon du xaalis rek mooy ger waaye waaye waaye wax danañ ci ger nit ab dig danañ ci ger nit jëflante sax danañ ci ger nit nga ñëw ci misaal tey ñu ñu accueillir la façon accueil boo xam ne nii day am lu ñu bëgg ci yow bu ko defee da xam ne loolu kon dañ la ko def ngir gere la ko ngir nga defal li nga bëgg kon loolu ay sew sew la yoo xam ne ku nekk kilifa da nga koy bàyyi xel nit dikkee la noo xam ne nii du la jox alal waaye nam lay dikkee dikki nu ger lay doon daal nag ndax bu fekkee da ngaa nangu ger da nga jël nit koo xam ne nii fa nga koy teg du place am nga teg ko fa ndax ger gi te ba lépp a yàqu loolu ak tooñ la te bëgguma ñuy tooñ noonu la koy toppee bam bam jeex daal ne ko tam ku la tooñ na nga ko jéggal te bàyyi maag moom loolu lépp la koy wax tur suñu am suñu borom ne ko yow ku la tooñ na nga ko jéggal bàyyi maag moom ndax man nit bu la tooñee nga jéggal ko bàyyi maag moom maa lay fajal tooñ gi ba nopp fegal la ko maa lay fayul ci tënk yooyu da am na yeneen yi ci ñëw ci gannaaw xëy na bu yaatoo ñu dellu siwaat ci noonu la koy tënkee kon loolu mooy warteef yi nga xam ne nii war na ci wàll yi bu mënti doon bu ñu la falee ak melokaan yi nga xam ne nii danañ ko séentu ci nit bu ñu ko falee ak yi nga xam bu nekkee ci moom xëy na la tax ñu fal ko dana ko mën def mu des nag ñun ñu ko fal bu nu ko falee ba noppi nag ne ko lii ak lii lañ bëgg nga doxal ko nun yan ak wala yan yelleef lan war a doxale sa digganteeg moom foofu dañ fi indi mbir léeg-léeg nit ñi da ngay dégg ñuy wax naan bala nga laaj say ak da ngay def say warteef fi la loolu du njàngale du njàngale mu baax du l'islam maanaam nit nañ ko jox àqam ak yelleefam bu ñu xool ba xam def nay wartee fa mu déet loolu mooy ak mbaax bu seen borom bu la nee bu la nee bu la ku la ku la bàyyi na ko jokk ku la bàyyi maanaam ci misaal sa mbokk bu la bàyyi woon na nga ko jokk yow daan ne koo xam ne nii daa taxaw temm ci xañ la yow na nga ko jox kon kay wax dëgg yàlla daf laa digal yow kee la ko war defu ko waaye yow na nga ko jox àq yi ko amel loolu lu am solo la ci mbir mi maanaam nit ñi dañoo bàyyi xel ci ne ak gi ñu am nit ki dañ ko ko wara jox mo xam def na la ko war wala def ko mom dañ ko wara jox akam buñ ko ko joxe bu nopi nag xol lutax deful la ko war ndax ci ñun la wala ci mom la bu ko deful luñ ko wara gal ñu door ko ko gal waye buñ tok rek ne nit ki li fek deful li ko war duñ ko jox akam ak yelefam lolu njumte la njumte la dañ joxe misal mu tuti man nga yor sa xale bu tuti fi mu febar nga yobbu ko hôpital ñi ne daa hôpital bi ci jënd ticket buñ ko faje amu ñu di ko xoolaan te waroon koo faj fajuñ ko ba xale ba faatu te faj gi xam ak yelleefam la kon bu ñëwee kay nañ ko jox àqam ak yelleefam mooy ñu faj ko bu wéree nag ñu xool ba xam lu ko tee dagg tikke daa mënta fay wala daa bañ bu ñu xool lañ cee doxale waaye bu ñëwee nit ki balaa ñu jox àqam ak yelleefam day def warteefam ñu baree bari daañ leen xañ seen àq ak seen yelleef kon kilifa bu nu koy topp di ko jox àqam ak yelleefam nun nañ ko defal li ñu ko war a defal ba noppi nag xool ba xam ndax moom la ko war ma koy def wala def loolu lu sew solo bu am solo boo xam ne nii dañ ko war a bàyyi xel ci relation yi baree bari mi ngi am suñu biir te doon ko bàyyi xel mooy ne nit ki balaa laaj ak xam day def warteefam déedéet nit ki ak xam nañ ko ko jox warteefam nag ndax def na ko wala def ko bu noppee ñu xool ba xam la tax def ko tax ku nekk nañ ko jox ak xam bu noppee na xool ba xam lu tax defut la tax ñu la tax la tax warteefam lu tax def ko noonu tam ci niñ ko jàngate noonu la war a doxal suñu digganteeg njiit ki jiite moy dañ ko wara top gannaaw ba condition yiñ ko wara falé fal nañ ko ci charte yiñ ko wara na falé fal nañ ko ci manam critère melokan yiñ doon sent ci mom gis nañ ko ba fal ko lañ yépp yëpp jëlé ci mom bañ fal ko buñ ko falé bu nopi nak dañ ko wara top ndax ma ngay wëyel wala wëyelul duñ ko xol nañ ko top ba paré door xol ba ngay wëyel wala ndax it kilifa bala mëna wëyel dara dañ koy top ak bu ñu la falee ba noppi di la fakastal doo mën a doxal dara nit ñi nag loolu dañ koy def lu baree bari dañ lay fal ba mat ñaari fan wala ñetti fan ñun la defoo la nga waxoon kon dañ lay fal déedéet loolu kay bu ñu ko def folle folle fal ci la ñuy dëkk ñun nañ ko topp ba xam te di ko xool ba xam la ko war dana ko def wala def ko bu demee ne nag ba xam ne nag am na diir boo xam ne nag leer na ko defu nag ñu doon xool ba xam lu tax def ko bu fekkee ak tële moo tax defu ko wala ci ñun la nekk ñun ñoo tax defu ko ñu xool li sabab sa bu ñu xamee sabab sa nag door a xool la ca war a topp ñu toppale ko ca waaye nag nit ñi bu ñu falee nit ba noppi jiital nit ba noppi nanguwuñ koo topp du mën a sotti moo tax àq ji kilifa njëkk njëkk am ci ñi ko fal mooy ñu nangu koo topp loolu la alxuraan di wax ci aay yu baree bari topp leen yàlla topp leen yonent bi ak ulil amr ulil amr waxoon naa ko léegi mooy boroom xam yi ak ñi yore àtte bi ñooñu dañu war a topp ku nekk lu mbir mi accès ñu delloo ko ci yow waxoon tam ne bu ngeen bu ngeen amee ak wuuti ci mbir lu mu mënti doon na ngeen ko delloo ci ñooñu ñu àtte kon loolu may topp gi kon àq ji njëkk ji nga xam ne ni ameel nañ ko suñuy kilifa mooy nangu leen a topp te génn ci nangoo topp kilifteef daañ ci ñëw ci kanam tuuti am na lu ci borom gis ko di wax bi ci topp mooy di ko conseiller di ko laabiré di ko laabiré loolu warteef la ci ku ji ku fal nit ku nekk soo gisee lu baax nga wax ko ko soo gisee safaan nga avertir ko ngir mën koo moytu waaye nag bu fekkee da ngaa fal nit ba noppi boo gisee lu baax nëbb ko boo gisee safaan xiirtal ko ca loolu dox gi du yomb te loolu dafa bari ci nit ñi léegi dañ lay jiital ba noppi buñ gisee lu baax loxo boo ko defee réussir la duñ la ko wax bu ñu gisee bu safaan xiirtal la ba nga def ko bu ko defee ñu da ngaa échec ci lañ la def loolu fekk na xëy na leneen la kon nangu koo laabiire te laabiire ga ànd ko sellal loolu warteef la suñ àq la jox dañ koo ameel ki ñu jiite rawatina nag su fekkee dafa ñoo laaj xalaat kilifa moom bu laajee xalaat ak ku man di doon bu la kilifa laajee xalaat da ngaa war a xool la gën a baax la gën a rafet ci sam xel nga wax ko loolu loolu mooy li boo ko deful def nga bàkkaar loolu moom may li am solo boobaat nga sàmmonte ca tam lay njariñul mbooloo mi loolu taman mooy mooy xalaat baax bi xalaat baax mooy luy jariñ mbooloo mi te doo ci seen sa njariñul bopp moo tax kon kilifa bu sàkkoo ne nañ ma laabiire ci mbir wala nañ ma conseiller ci mbir wala nañ ma xalaatal ci mbir nit ñi dañ ko caa war a fekk warteef la ñun ñu fekk ko ci xalaatal ko ci loolu itam danay am léegi léegi léegi ci misaal tey kilifa bu woote woon ne mbir sàngam ak mbir sàngam dama bëgg ñu bokk ci xalaat ñëpp war a wuy ji waaye nag kuy wuy ji na nga fekk nga xam ca la ngay wax dara bul wuy ji te yóbbaale woo dara mënoo faa dem teewal fa mbooloo mi te la ñuy wax yow xamoo ci lu bari wala nga wax yitteelu mbooloo mi loolu tam taxul ñuy wax waaye day fekk lañ lay laaj ay conseils nga xam ca dara te mën caa wax kon bu laajee ñu conseillé ko ci mbir loolu warteef la ci ñun ñu conseillé ko buñ delloo ci lettre boobu moo waxoon léegi dañ tënk dañ ci tibbaat waxoon na ko ne ko sunu borom da ko wax ne ko bi ma la falee ba noppi nag ma sant ni may sante mooy na nga dimbali nit ñi ci dundal gox bi wa loolu waxoon nañ ko léegi waaye ñii lay waxal day wëlbati di wax ak ñi nga xam ne nii ñoo ko fal mu ne leen bu ngeen ko falee ba noppi yéen ñi ko fal na ngeen ko dimbale ni ngeen koy dimbalee mooy lépp lu ngeen xam ne bu ngeen ko ko waxee gox bi dana jëm kanam na ko ko wax lépp loo xam gis ngeen ne bu ko defee gox bi di jëm kanam na ngeen ko ko wax te di ko ca soññ daal ne bu fa kenn dem ci moom it di ko wax lenn loo xam ne nii sa njariñul bopp doo nga tax loolu it njuumte la te ñu bari ci ñun dañ koy def kilifa gi dana la recevoir la léeg audience boo demee doo daanaka wax dëgg yàlla doo wax lu am solo yóbbaale nga sa liste nañ ma may nangam nañ ma defal lii nañ ma defal doo wax lenn lu dellu ci mbooloo loolu tam ku koy def yaa ngi fakkastal kilifa ndax bu keneen bu ko ñëpp defee yëf dox kon boo fay dem. la nga yóbbu na nekk njariñul mbooloo mi noonu nga koy jàppalee àq la juñ ko amel kenn warta dem ci kilifa di fa wax sa intérêt bopp kese kese am nga nag intérêt boo xam mi ngi dugg ci biir intérêt mbooloo mi nga waxaale ko sa intérêt génn loolu dara newu ci waaye njariñ loo xam yow dong lay jariñ loola boo demee ba jàkkaarloo kilifa gi nga xam moo jiital mbooloo mi amoo sañ-sañu di ko fa wax la loolu la ko wax ne kon bu ngeen ko defee noonu ak la ciy jëriñoo loolu leneen la yéen saa sam ñëw na ci xaddis mu wax ne man sax saxaaba yi ne leen diine ak laa laabiire la ak laayante biir la wax ko ba mu ñetti yoon ña fa toogoon ne ko kan lañu war a laayanteel biir mu ne leen yàlla ak yonent bi ak ñi jiite jullit yi ak mboolem jullit yi loolu it laaj na ñu xam yàlla nu ñu koy laayee biir yàlla ni ñu koy laayee leer na mooy lim digle ko fi muy tere nga di ko bàyyi loolu mooy laayante biir ak sunu borom. kitaab wax na ko ci moom it la ne ci biir nga di ko jëfe di ko bàyyi loolu loolu leer nañu a aimmatul muslimin nag mooy njiitu jullit mooy kilifa yi nañ leen di laay biir mooy ñu leen di wax la baax te di leen moytuloo safaan bi ndax it man mën ngaa ne ci suuf yow mi ne suuf li ngay jàngatoo di ko gis du bokk ak kane ca mën naa am loo mën na ko ëmp bu ko defee nga jottali ko ko moo tax kon du nanguwuñ ci ab jullit sa kilifa ne la laabiire ma ci mbir nga mën ko ca laabiire ba nopp bañ loolu du melokaanu jullit waaye itam boo koy laabiree charte ba rek mooy na nga xam la koy laabir la nga koy laaye biir lu mu doon na nga ci am xam-xam bu mat sëkk te boo koy joxit na ànd ak sellal te boo koy joxit na nga ko def te yàlla tax te jiital ci njariñul mbooloo ma kon dégg ak topp suñu diggante kilifa yi lu war la ci jullit bu nekk amul benn nit loolu bu ñu ko wax damay wax jullit rek waaye ñun ñëpp bu ñu xasee jiital nit te dëppoo ci ba jiital ko kenn amatu sañ-sañu mooy ko damay wax ju ndax loolu lañ gën a miin di ko waxee noonu rek waaye ñëpp ngi ci biir moo tax kenn amul sañ-sañu fépp ci kaw njiit te tegoo ko fi wér rarement la ñuy doon mbir xaalaat naadira la doon yoo xam ne nii ci nit nit di am sañ-sañu ñàkk a topp génn ci topp kilifa ndax loolu mooy mooy liy mën a sàmm am nu ak istiqraar kaaraange ak stabilité li ko mën a sàmm ci réew mooy am kilifa danañ ko gën a leeral moo tax gis nañ ci xadis fuy wax ne tam dégg ak topp war na ci jullit war na ci nit ku nekk moo xam la ngay topp neex na la wala naqal waaye gannaaw bu nit ki ñoo ko fal déggal ko toppal ko moom lu ñu war la li feeg dég diglewul nag loo xam ne day mooy yàlla gu fés mooy li mu wax ci njëlbeen gi mooy ku dul yàlla yàlla mooy sa kilifa kon nag geneen kilifa gu ñuy topp danañ ci bàyyi xel kilifteef ak sunu borom moo tax bu ñu digalee loo xam ne nag lu ne wàng wàngaarale loo xam ne yàlla moo ko moo ko aaye boobaa moom ko ñu topp moo taxit borom xam-xam yi wala bok ñi gëstu wàll gu wax delu won waxat ne bo deme ba gis ci sa kilifa lo xamne ni nii neexu la wala bok gis nga ne dal ab safan la neena da ngay muñ da nga muñ ndax neena kep ko xam da takali ko mbolo mi lu ko sebre sebre moy danaka lu tolloo 50 cm man waxin la rek dal bu nit ñi jaaroon fi yow nga lu tolloog cinquante centimètres génn ko mbooloo mi rek nee na boo faatoo foofa faatu ku nga fa faatu nga faatu faatu jaahiliya moom nga faatu foofa kon loolu dafay wane ne génn ci biir mbooloo mi moom maanaam nit sañu ko du dul lu ci kaa yoo xam ne nii kaa yu raar lay doon yoo xam ne nii bu amee balaa amaat dana yàgg lool moo tax ñoom dañu wax ne bu ñu falee nit xëy na bu fekkente ne am nañ sañ-sañu bañ koo topp nee na ñaari sart yi rek ci lay daje bu fekkee daa feeñal kéefar gu ma sëkk bu fekkee jullit la bu fekkee li ñu ko faloon ci jullit la bu fekkee dañ laa faloon te sukkandikoon ci alxuraan fal la nga dem ba weddi alxuraan weddi gu wér boobaa kufur lañ koy tuddee bu fekkee dañ laa faloon ci constitution boo xam ñu ñoo ci dëppoon nañ ci lañ la fal nga dem ba weddi ko weddi gu wér boobaa dañ kéefar lañ koy tuddee foofa waaye kon foofa rek la amee sañ-sañu ne kon kat am nañ sañ-sañu bañ a topp kilifa gi waaye nag bala ngaa génn nit sart bi ci solo mooy na nga fekk nga am man-manu man faa jële kooka teg fa keneen te man-man bi na fekk mu doon loo xam boo ko fa jëlee maanaam lu gën a lu gën a lu gën a safaan bu ëpp la fa doon bañ du fa nekk maanaam ci maanaam ci mu ne na fekk nga am man-manu man faa jële ki ngay fi kilifa googa te teg fa te fekk na doon jële ga nga ko fay jëlee la muy jur du yées la nga doon bañ loolu sart la ci génn ci kilifteef ndax dafa am sart boo mooy ne aw am ñaawteef kenn du ko dindee ci lu gën a ñaaw maanaam mooy njuumte kenn du ko faje njuumte alxata laa yu'aalaju bil xata bu fekkee nit ki daa juum yow nga faje ko njuumte njuumte yu bari doo nga fay nekk bu fekkee daa deful safaan nga fa faj ko fajtal boo xam ne nii la muy jur safaan boobu mooy ëpp doon li nga doon fajtale safaan yu baree fay nekk kon bala ngaa am sañ-sañ fipp ci kilifteef day fekk nga mën ko faa jële te boo ko fa mënee jëlee dina fekk boo ko fa jëlee ba noppi la cay topp du yées la fa jëlee woon loolu lu lu mat a xam la ndax am na lu mu jur lu bare bari ci àddina bi jur jamono ji ñu toll nii dinañ ñëw ci kanam tuuti moo tax ñiy gëstu ñëpp dëppoo nañ ci ne. ab safaan nga jëlee ko fa safaan bu gën a safaanu loolu yoon nangu ko lislaam nangu ko am xel nangu ko amul wenn yoon bu ko nangu moo tax ñu nekkoon nag su fekkee dañoo dem ba gis nekkoon ki ñu fal te mooy kilifa gi dem na ba dugg ci wedd gu ma sëkk sart yañ ko faloon wedd rek wedd gu leer nañ nee na su fekkee mën nee su fekkee mën nañ ko faa jëlee te teg fa njiit lu baax baax na waaye nag na fekk buñ ko fay teg ak yàqu bañ caa tegu goo xam ne nii mooy gën a ëpp loola waaye nag su fekkee gis nañ ne kat kii jëlee ko fi mënuñu ko wala wala buñ ko mënee buñ ko fi jëlee dana fi bàyyi coow ak ay safaan boo xam ne nii mu ëpp ak nekkoon na fi mooy gën nee na boobaa kenn amul sañ-sañu fipp ndax gis nañ ay barab yoo xam ne nii lu mel noonu dafa am barab yoo xam ne noonu dafa am maanaam fipp ne dañ fi jële kilifteef gi tey kilifa gi tey mën naa am jële nañ ko fa sax waaye nag jafe-jafe yi ñuy dund tey ak coono ba ñuy dund kilifa kilifa gi nekkoon fa moo gën te loolu lislaam nangu ko moo tax dañuy bëgg bu ñu amee ak dal am stabilité am kaaraange bu nu ko yàq bu nu ko yàq jële fi kilifa gi rek bu mu tax ñu yàq ko waaye nag na doon loo xam ne ba ñu ko fi jëlee dana mën a sàmmaale kaaraange googu yam ndax nee na bu ñu ko defee léegi ak yàq yàqu daf ciy topp am na réew yoo xam tey boo fa demee fi la ñuy dund jamono ji ci yàqute maanaam lañ doon bañ ba taxaw ba tax loolu am fa moo gën fuuf ci ñoom moo tax ñu ne kon nag su fekkee dañoo gis na ñun kii fi nekk tey di kilifa li mu yor ci kàtt nag man-man ñun kàttan ak man-man gi ñu yor mënta xeex ak moom boobaa kon dañ naan lay kon nañ muñ te ànd ak dégg ak topp ba noppi nag di ko conseillé di ko conseillé ak di ko ñaanal aw lu baax ak itam nag ku nekk wet ga nga nekk nga farlu fa loo man ba safaan ba muy def moom nga woyefal ko ci fa nga nekk loolu lu mën a nekk la ci misaal tey am na ñuy yu bare bari yoo xam tey ñun ñëpp bu ci ku nekk taxawoon taxawaay ba nga war a taxaw fi la xaqiqa ñoom buñ ko fi jëlee wutit jeexi jami bàyyi mën naa ba am solo waaye nag bu fekkee ku nekk da ngaa fas say loxo rek wane ne man lii mënuma ci dara wala duma ci jëm dara booba gi day bari kon nan ko fa bàyyi ba nopp ku nekk nag ñun ci di liggéey ca suuf di liggéey ci suuf ngir woyafal safaan boobu nga xam moom lay jur danañ koy faral di joxe ci misaal ci ku dëkk ci kër léeg nga dëkk ci kër goo xam yow ci misaal benn néeg nga am benn néeg nga fa am ci misaal néeg bi nga dëkk nga dem ba gis ne yàq sa njaboot xajatu leen ci néeg bi léegi dañ ne da war a am kon dëkkuwaay bu yaatu léegi nag ñu laaj la nooy def ndax da ngay xëy xëy ne rajax néeg bi dem wuti dëkkuwaay wala da ngay dem wuti dëkkuwaay ba dëkkuwaay ba sotti nga ñëw jël say bagage tuxu fa yàq sa njaboot door toñ néeg bi loolu yaay jëfëndiko sax lu may def ndax so tojé néeg bi te amo dëkk way mom donte ñaari fan la danga ko rank ci biti kilifa non nak la démé fi ne bu fekkente da nga fexe ba jële fi ki fi nekk te fekkul nga waj waj tayu mat donte nangami at la réew mi dana ko tuumaranke te loolu gis nañ ko fu bari bari motax manam xëtt sart wala xëtt ndigalul kilifa manam bala ko nit def manam li tax yoon may la ko dan dan dan dana sori lool te bu la koy mayit charte boobu day fekk da ko ci gàll ci yow moo tax dañuy wax ne kii jiite dañ koy xëj ñetti façon njiit la doon maanaam dañ koy xaaj ay xaaj bu fekkee jullit la bu maanu di sellal di doxal na mu war a doxale kooku moom dafa xaraam lay doon ci nit ki nga bañ koo topp kilifa bu fekkente ne maandu la di doxal la mu war a doxal rawat na di jullit di sellal dañ ne kooku moom ku ko toppul xuruju alal jamaa lañ lay tuddee te xuruj alal jamaa loolu mamnu fil islam dañ koy aaya ci lislaam mooy nga génn bedd dañ koy aaya su fekkee nag kii ab kii àtte njiit la lislaam a ci moom waaye nag xëy na am na ay manqué manqué yu ne ci moom maanaam war a dunde diine dundewu ko dëgg-dëgg dundewu ko noonu mooy koo xam ne nii am na lu muy doxal ci yoon waaye am na lu muy doxal ci wet gi loo xam ne léegi du nekk yoon kookaan dañ nañ dañ nañ koy topp waaye nag di ko conseiller ngir njuumte yi muy def mu di ko dabaatal am na koo xam nag moom kàccoor lañ koy tuddee moom moo jiite waaye kàccoor la day tooñ di def loo xam ne nii sos yi bare bare yoo xam ne nii kenn xamul lu mu doon yi aay yépp mu di ko def waaye ñu ne kookaatam su fekkente ne ak àggul ci daraja yi kéefër bu doon ci lislaam la dañ naan kookaat dañ koy war a topp dañ koy topp waaye nag dañ koy topp ci lim lim digal te te dëppook ndigali yàlla yi lam digle nag te dëppoot ak ndigali yàlla yi nag loola duñ ko ci topp su fekkee mën nañ ko faa jëlee itam dañ ko fay jëlee teg fa ku jàpp teg fa ku baax waaye nag na fekk sart bi ñu tuddoon léegi na fa nekk su fekkee mënoo ci dara tam bu la neexee yow nga dem bu diglee nga bañ waaye na nga xam ne la ciy juddoo ci ay kii danga koy xam ci ay ci ay manque manque da nga koy nangoo da nga koy nangoo da nga koy nangoo supporté moo tax ñëw na ci xadis donte xadis man naa ki waaye am na fu mu wax sax ne da ngay muñ nee na donte daf laa dóor nangu sa alal liñ la sant yow mooy nga muñ te na nga ko topp bu dee kii àtt na nga xam daa weddi complètement moom bu dee lislaam ji weddi na alxuraan ji bu dee dustuur ba bu dee ko sart réew mu weddi na ko kookaa nag moom it dañ ko mën nañ ko faa jëlee waaye moom it xam na jële gi moom mi ngi aju ci bu ñu ko fay jëlee na bañ a jur lu yées loolu rek mooy li ci am mooy li ci am solo kon nag waaye ñu bàyyi xel tu jamono ji nekk na ne digle lu baax ak ayab safaan nag moom it warteef la ci ab julit wala boog warteef la ci nit ku nekk loolu na nga di ko def sa loxo wala sa làmmeñ wala sa xol nañ ko digale yooyu dem ñu koy bàyyi xel ne kon ki jiite itam war nañ koy digal lu baax di ko aayib safaan loolu loolu loolu kenn kenn kenn ko mooy di ko conseillé di ko fàttali léegi nag li ma doon wax léegi nag mooy ne yooyu nag bu ñu sàmmonte wut ak moom ba tax xëy xëy bis rek ne kët ne jonn ñu ne kii daal neexatuñu te dañ ko fi jëlee par force ñu jëlee ko fi la muy mooy mooy réew mu tas te la nga doon saafara du saafarawu tey bu ñu jëloon réew mu mel ni siri siri ci ñetti ata ak ñeenti at ci gannaaw bokkoon na ci réew arab yi nga xam ne nii ñoo gënum njàng ñoo ëpp sécurité ñoo seen économie doon dox bu baax wàllu wér-gi-yaram maanaam lu ñuy natt ci réew arab yi rek bokkoon na ci réew arab yi ko gënoon baax la tey ñoom xëy-xëy benn bis ne ka fa nekkoon il faut que ñu jëlee ko fa lu mu leen jural li mu leen jural tey mooy lu mat million ngi doomu aadama faatoogun nañ te yemagu million ci ay adam aadama faatooguñ nañ fa te yemaguñ fa genn walu population siri tay ay daw laq lañ ñi ñinga turki ñi ñinga europe ñen ñi ngi dé ci geej gi ma nga fa tay école doxatu fa paj doxatu fa courant sax dañuy dem ba mi coupé ko koy wax de yalla kon ñom te tay lañ doon safar saafarawul kon gis ne lu yanu mana la tay demal libi libi gi nga gis ni tay ka fa nekkon bañ ko fa laataa jëlé tay maanaam lam fa lam fa mu jëlee réew mi ak fa mu ko indi ñoom ñu xam ko ak la mu fa liggéey tey maanaam bañ ko fa laataa jëlee lam fa tabaxoon lépp toj nañ ko pont yi mu tabaxoon sax dañ ko doon bombardé muy toj nga xam ne tey ñoom tey bu ñu demoon ba fal keneen tam danañ dundaat lu ma téeméeri at yoo xam ne nii ci liggéeyaat ci lañu nekk wala lu ko lu ko jar tey léegi àndoon ak moom ba keroog mu fay jógee ci naturellement mu jógee fa wala ñu am beneen fexe boo xam dañ ko fa jëlee moo gënoon tey demal Somalie Somalie gi ngay gis nii 1991 lañ fa jëlee woon siyaat bari bañ ko fa jëlee léegi 91 ak léegi ñaata at la état amu fa état mënu fa am ci rayante ci lañ dëkk maanaam daanaka fanweeri at yoo xam ne ko dund nañ ko daanaka yoo xam ne nii mënuñoo taxawal état te xipp doo nga fa moo ko fen doon ne tey par force ñu jëlee ko fi kon nga gis ne kon loolu lu yomba lu yomba ci nit ñi di bañ nit fipp ci kaw kilifa lañ ciy bañ ndax jur ko dul xam tey sunu borom daa bëgg ñu jaam ko ci kaw suuf yàlla neen li mën indee ci kaw suuf mooy ngeen jàmm te ku nekk xam na ne tey réew yooyu ma tudd tey julli sax kenn mëntu ko faa def normal saa yooyu julli yaa ngi xalaat ne jàkka ji danañ ko explosé balaa julli koy jeex mu explosé ñëpp faatu daaw rek daaw daaw ci trawih yi ñuy def am na réew moo xam ne ni du ma tudd réew mi waaye maanaam bi ñu julli trawih janax moo génn janax janax moo génn dugg sàppee rek julli ko yàq am na ñu ci faatu ñenn ñu damm janax rek maanaam nga gis fi ñu toll réew yi foofu lañ toll suñ ci tiitaange maanaam nga gis ne loo gis rek jàpp nga ne dee ñëw na kon loolu nit ñi bu ñu amul ak dal amuñu kaaraange amuñu stabilité duñ mën a jaamu yàlla kon nag tey bu ñu ne tey par force nañ fépp jëlee fi kilifa gi duñ ko topp nañ ko fi jëlee buñ ko fi jëlee la taxoon yàlla bi ñu dootuñ ko man kon yàqu def ak yàqu def lay jur moo tax loolu boo xam ne nii mat naa bàyyi xel te léegi dafa bokk yi nga xam ne dañ ko yombal lool dañ ko yombal lool kilifa gi fal nañ ko doxal diir rek ñu ne nañ ko fi jëlee par force dafay jóg nga daal ko coow li commencé yu baree bari commencé yooyu nit ñi dañ cee war a am yeewute ndax la muy jur ëllëg dañ ko war a jàng te lislaam it gis-gis boobu la ci am te gis-gis boobu ci lislaam am it képp kuy jëfandikoo sa xel mu sell danga xam ne lii luñ mën a dégg la te boo jàngatee doxinu àdduna bi da nga ko fay gis da nga koy gis mu leer nañ kon li ñuy liñ ci bëgg yokk nag mooy loolu nag lañ wax kon kon am na sart yi ñuy fale kilifa bu nu ko falee ba noppi am na melokaan yoo xam war naa ne ci moom bu nekkee ci moom ba noppi nag àq ak yelleef yi nga warteef mu nekk ci moom bu nekkee ba noppi nag àq ak yelleef yi ñu seq ak moom nag mooy yu mel noonu mooy nangu koo topp topp gi nag lii ma doon wax lépp day dugg ci biir léeg-léeg nag li ñu ma isyaan madani day am maanaam fipp fipp day am fipp nag ñaare li koy indi ci mbooloo mën naa am ci réew mën naa am ci mbooloo maanaam daayira yi ñoo yor rek da ngay gis daayira moom xa gaay dañu xëy xëy fépp ne doodoo ko jiite ñaari day am sabab sabab ay sabab yu koy jiite noonu mu amee ci daayira noonu lay amee ci réew ma ci kaw kon fépp ñenn ñu tudde ko ñenn ñu tudde ko ansiyaanul madani wala boog mooy goo xam ne nii maanaam ñàkk topp ndigal ko gisee ñaare réaction lay doon boo xam ne koy jur mooy nit ñi kilifa gi ni muy doxee xëy na gisuñ ci seen bopp wala boog tooñ gu jéggi dayoo goo xam ne nii mu ngi koy tooñ wala boo xeeb goo xam ne nii mi ngi leen koy xeeb di leen xool bëtub xeebel boo xam ne nii du leen nawloo yooyu nag yu ci nekk day indi mën naa indi fipp ci biir mbooloo moo xam mbooloo mu ndaw la wala mbooloo mu mag mi la ñi la jiital saa yu ñu ba gis ne da leen a xeeb booy wax ak ñoom sax léeg-léegi da ngay wax ak ñoom day doy waar booy jëflante ak ñoom ngi jëflante day doy waar wan leen ne daal duma seen moroom ñaare ñooñu bis buñ la dalee sa kaw bu mu am na beneen boo xam ne ñu tudd daxtu saïd daxtu saïd mooy pression bu ëpp tey boo jëloon mbuus gi tey def ci am ndox wala yaa xam loo ci def di ko ëf booy ëf te bàyyi rek bu yàggee danaan tël te bu nee tël nag li ne woon ci biir ñëpp lay laal mën naa laal ku ci yoonam néewul sax mën na ko laal loolu loolu mooy loolu mooy mooy mooy pression bu ëppee ci biir askan nit ñi bu ñu la jiitalee nga jàpp jiital rek di dax di bës di bës di bës rek day xëy benn bés ne tëf nag la cay juddoo mën naa laal ñëpp mooy musiba musiba bu ñëwee du bàyyi kenn du bàyyi kenn moo tax it loolu itam njiit daf koy bàyyi xel moo tax li ma waxoon léegi ne njiit day boole nooy ak ak dëgër léeg di inform bu fa àggee da ngay nooy da ngay nooy ndax boo bësee continuer rek bu yàggee danaan tëf te bu nee tëf danga ci gis mu yóbbaale keneen te nag al fitnatu asad min al qatl jàng nañ ko alxuraan mooy yëngal fitna moo moo gën a moo ëpp musiba rey mbooloo ndax dem fitna day weesu rey day doon rey ba noppi yokkute leneen yàq bu baree bare moo tax loolu bu ñëwee nag kon ay forme yu baree bari ci lay ci lay départ moo tax kilifa dangay ngay déglu am na yu ñuy ruumalaan ci suuf da koy déglu boo ko dégloo da ngay gaaw gàttandu ko balaa balaa jëm kaw nga gàttandu ko fexe ba fajtal ko balaa jëm kaw ndax ci yooyu lay tàmbalee fi ne fipp bu ko gis rek ci ab néeg lay tàmbalee nu koy waxtaane ndànk muy riim ndànk ndànk muy riim ndànk moo tax en tant kilifa war nga def yooyu di ko sàmmonteeg moom di jaxasoog nit ñi di déggul wax yi la ñuy wax lañ nga ca gis lu ñu war a jubanti la nga di ko gàttanu balaa balaa balaa ëpp boo ko deful nag mooy dema dem ba àgg ci nit ñu xëy ne nañ nañ grève ci misaal duñ xëy liggéey duñ xëy liggéey boo ba àggee fekkoon nañu waxtaan lu jiitu loolu def jëloo jëloo matukaay ba nga war a jël ñu àgg foofu bu ñu àggee foofu nag boo fajtalu nag mooy dema dem ba yàgg nag mu indi nit ñi fipp nag fipp gi nag mbooloo faatu ca réew ma yàqu mën nga faa jóge man nga faa bañ a jóge waaye la ci juddu ñoo xam nañ ko moo tax fipp moom li tax ñu kilifa mën koo moytu rek mooy saw doxin nga teg ko ci xel xel nag mooy dangay ngay nangul ñeneen ñi ne am nañ xel ndax dañ ne xel mooy li nga xam ne nii buñ ko doon sédd buñ ko doon séddalee maanaam buñ ko doon jaay day lab ndax ku nekk jàpp nga la ci am daf laa doy ku nekk sama xel doy na la moo tax ni la sam xel doyee ba nga jiitu ni ngay xalaate jàppal ne nit ñi ci sam noonu lañuy ñuy xalaate bu ko def da ñoom ñuy xalaat te ngay bàyyi xel ñoom xalaat yi ñuy xalaat mooy bi ci jiitu boo ko defee ba noppi na ci ànd ak takk gu mat sëkk xasmu mooy bala ngaa def da waxtaan boo waxtaanee ba def des ci nag booy jëf na nga jëf ci fulla ak fayda waaye lépp nag na ko àndale na ko boole ak nooy ak dëgër loolu mënta ñàkk ci kilifteef kon yooyu bu amee ñaari fipp mën naa bañ am waaye nag bu amul ngay bës di kon continuer di bës rek bu yàggee mbooloo mu mënti doon bu bës ba ëppee bis dana ñëw mu ne tëll te bu ne tëll nag ñaari dajale dajalewaat ko moom dana xaw a jafe kon loolu bu ñu ko moytoo bu ñu ko moytu li muy jur mooy ñàkk kilifa kilifa nag bu ñu demee ba amul ci mbooloo maanaam la muy jur la ci gën a néew mooy mbooloo ma tas waaw daayira bu ñu def bu ñu demoon ba dàq président amatul président mooy daayira ba tas na mbooloo mu mënti doon kasaali gën a ko noonu man loolu dañ ci joxe misaal rek waaye mbooloo mu mënti doon bu ñu demee ba kilif ci fa amatu fa day tas mooy mbooloo ma tas na kilifa mooy ki nga xam ne ni mooy mooy mooy mooy mooy mooy mooy jokkale diggante mbooloo mi mbooloo mi kilifa moo leen di moo tax mbooloo mu nekk seen kilifa bu nekkee ca biir rek mbooloo ma day nos mbooloo ma day nos ndax moo leen di jokkale li fekk ñu ngi koy gis seen biir rek ku nekk da ngay jokkale ak sa morom moo tax léeg-léegi kilifa bu bu bu làqoo métit woowu mooy li nit ñi gën a yëg ndax moo doon mi ngi mel ne rek boroom kër ci bu làqoo fi laqiqa du jaaginu dépense ak yé mooy waaye maangi maanaam rab mbo boole gi daan boole mbooloo mi ci kër gi mooy njëkk métti ci nit ñi ndax moom ci lañ daan gis ci lañ daan ñu bari ci daan gis seen bopp ci muy muy buum gi nga xam ne nii moo leen di lënkale moo tax kon bu fa nekkul nag mbooloo ma dafay daal di tas loolu mooy la néew te kilifa tam moo mën a soppi mbooloo fi ne mbooloo mu mën ci doon buy daal la defoon ñu xëy soppi kilifa gi rek mbooloo mu mën naa daal di soppi ci façon bu gaaw ndax dañ koy tëdd di wax ne an naasu ala diini mulukihim dañuy wax ne nit ñi ñi leen jiite nuñ mel ñaare noonu la ñuy mel li jëpp noonu la mel moo tax nit mën lay xëy di jàng léegi def lu bare bari du soppi dara waaye kilifa mën naa ñëw benn bis ci benn acte bu muy def benn doxalin bu muy def rek soppi mbooloo ndax ndax ndax ndax moom dañuy am gis-gis bi ñu am ci moom tey day am influence boo xam da koy am ci moom. léegi nag bu amul nag loolu lépp dañ koy ñàkk léeg-léeg it mu am ñu ne kii mooy kilifa gi waaye amul man-man pouvoir nekkul ci loxoom du def du def du dindi kookaat moom ñàkk kilifa gu fi ñooyam kilifa gi bu fu nekkee te du def du dindi. moom ñàkk fa nekk ñooyam loolu fu mu am da ngay gis ne maanaam sikk yu bare ba day commencé di feeñ ndax booba am na kilifa gu mag ko waxoon nee na gars yi boo leen délégué dañuy doxe sa làmmiñ dañuy doxee seen jëm dañuy dañuy dañuy waxee sa làmmiñ di wane seen jëmm di doxee seen jikko dañuy do dañuy waxee saw làmmiñ di doxee seen jikko waaw loolu dañuy doxee seen dañuy dañuy doxee waxee saw làmmiñ di doxe seen jikko loolu nag waral léegi ndax booba kilifa gi pouvoir bi néew ci loxoom ñim nekk seen loxo nag ñuy jëfandikoo làmmiñu kilifa ga waaye di doxee seen jikko bu ko defee lu bare bari di yàqu ci biir mbooloo mi mu ne fi waaye am na doole sax nag waaye amul expérience bu mën a doxalee li ñu koy wax boobaa tam mooy li ma waxoon léegi mooy ne loolu lépp dañ koy war dañ koy war a fàgguwaale ci ki ñuy fal bu ñu ko falee loolu newu ci rek mooy ne kilifa dootu fa am loolu nag la muy jur kon mooy ne bu nekkee ci mbooloo mbooloo ma dafay tas la waroon a jaar yoon dootu jaar yoon la ñu waroon def dootuñ ko def ku nekk la nga waroon wax dootoo ko wax da nga ko fay bàyyi dem ca la nga warutoon wax di ko wax la nga warutoon def nga di ko def mooy dañuy jël mbir yi wëlbati ko la féete woon kaw féete suuf boobaa nag li ñuy wax fawda mooy anarchie mooy moo fay moo fay nekk maanaam ku nekk la neex def kenn dootu jubbanti kenn boobaat day mel ne kon nag lañ koy lënkaleel mooy nga gétt goo xam ne nii ab sàmm dafaa newut tey boo jëloon jur gi yóbbu leen ba ci àll ba sàmm ba daw dem bàyyi leen fi amatuñu sàmm xar mu nekk fu ko neex jëm bu ko defee nag xar mu nekk mën naa dugg fu nekk mën naa dem fa koy lor mën naa dem fa koy jariñ nag mooy ne kon gétt ga tas na gétt ga amatu kilifa tam ci mbooloo bu fa nekkatul wala amatul man-manu doxal mooy mbooloo ma yàgg-yàgg day tas yàgg-yàgg day tas bu dem réew réew ma ci tas la jëm bu mbooloo mbooloo ma ci tas la jëm xam naa ci tënk sëñ Ablaay loolu mooy li nga xam moom lañ bëggoon a tënk ci kàddu gi gis na daal tomb la boo xam ne nii waris na koo gën a waxtaane ci jamono ndax bokk na ci li ñuy xàmmee jamono ji ñu toll nii mooy ne ñàkk kilifteef léegi dañu jàpp ne ñàkk kilifteef sax ci yeewu la bokk tey boo demee tey ci barab yi nga xam ni tey lañ leen xamee woon dëgg dëgg dëgg dëgg mooy mooy mooy mooy nangoo nangoo nekk benn nangoo topp ci kenn nga dem ba yàgg gis fa ku nekk fël fenn di woote booba ba nga xam ne am na lu xew te buñ ci waxul la muy jur ñëpp xam nañ ko te loolu amna mag ñi nekkoon ak sëñ bi ku ci mësa wax wax ju am solo damay jëlé waxtaanu ci kaw wàcc ko ci li ñu gën a jege ci ay murit ndax ñu xam ne gi ñuy dundit wax dëgg yàlla lañ ñu doon nawe mooy nangu kilifteef li ñu nit ñëpp ragale woon mooy dañoo nangu woon kilifteef mooy ne bu kilifi ga xasee wax kenn amutul wax ñëpp lam wax la ñuy def bu xasee ni déet ñëpp ne déet moo taxoon ñëpp ragal ñu léegi nag bu ñu demee ba tey ki nga xam ne nii maanaam wax dëgg yàlla ku tekkiwul lu am solo sax nangoo jël kenn ci giñ gën a fonk ci ñun teg ci ay baat loolu dafa am lu xew mooy kilifteef gi ñu waroon a joxe dëgg-dëgg moo des loolu nag am na mag mu ci waxoon wax ju am solo ndax waxoon naa ko léegi dama la waxoon ne la léegi kilifteef léeg-léeg nga nangu loo xam ne nii da koy nangu moom sax mën naa bañ ne ci yoon waaye da nga koy nangul kilifa gi dafa waxoon ne ñi fi sëñ bi bàyyi nee na ñett ñett ñett ñetti groupe la ko def nee na mooy ñi nga xam ñoo sëñ bi ñoo bokk Maam Mor ak ñi nga xam ne nii njabootu sëñ bi ci boppam lañ ay doomam ci misaal ak ñi nga xam ne nii taalibe sëñ bi lañ léegi nag mu ne ñàkk a topp mënu fi am mu ne ndax ñi nga xam ne nii ñoo maam sëñ bi ñoo bokk Maam Mor Anta Sali ñooñu bi fi sëñ bi jógee bi fi Maam Mor Anta Sali jógee dañoo bokkoon ak sëñ bi ñu miraas Maam Mor Anta Sali ku nekk jël ci saax mu ne ñu nag jàng nañ te xam nañ ne nit mënoo bokk ak moom miraas baayam ba noppi ñoo di bo miraas mënoo bokk ak baayam miraas ba noppi ñoo bokkaat moo moom miraasu baayam mu ne kon ñooñu mënuñoo xëccoog njabootu sëñ mu ne ko ñi nga xam sëñ mooy seen waajur tam ñu jàng nañ te xam nañ ne lislaam li mu wax ci mag mag kilif la kilif la goo xam dañ koy doon xam nañ ci njëlbeen bi mu ne ko ñooñu kon xam nañ ne leen lislaam sant seen digg seen mag kon ñoom tam mënuñoo xëccoo ba kilifa di fi ñàkk kon ñoom dañ topp seen gannaaw mag ndax xam nañ ne leen lislaam sant seen digg ak seen mag mu des nag taalibe mu nekk taalibe nag ñun ñi nekk taalibe ni ñun suñ digg ak njaboot suñ Tuubaa dina ko fi nekk nee na ko su fekkee dene day dañoo jaar fi sëñ bi jaaroon te jàpp nañu loolu la ñuy def noonu la ko waxee bu ñu jaaree fi sëñ bi jaaroon gëm nañu loolu la ñuy def daañ leen topp nekko su fekkee dañoo jaar jaaroon te jàppuñu ne dañ ko def daañu leen topp ngir warmal sëñ bi kon nga gis ne ñoom foofu lañ tegoon mbirum kilifteef kon war ma jooju mooy tax kilifteef mën a sax continuer war ma jooju nag bu ko bëggee wuññi kilifteef dootu fi am te léegi fu ñu dem nag ba kilifteef nag ñu bëgg koo ñàkkal ku nekk jàpp ne da ngay xalaate ak na ngay gisee loolu nga war a wëyal loola nag wuuti naag lislaam jàngale xel mu sell itam ko ndax gis nañ léegi dëkk yi nga xam jaar nañ fi ba ñàkk kilifa da leen ñàkk kilifa juddal jural te gis nañ it fi yonent salaam di santaane bu ngeen àndee ci yoon bu ngeen xasi ëpp kenn bu ngeen dee ñaar rek da ngeen bu ngeen dee ñaar jëm ñett rek il faut kenn jiitu na kenn jiitu bu ngeen ñaari ñett rek il faut am nga ngeen wut ku ngeen jiital waxuma laak ne bu ngeen dee mbooloo alxuraan moo ñu jàngal ne kilifa mën nekk ñaar kilifa genn lay doon kilifa mu genn lay doon bu nekkee ñaar rek amatu fa waaw mbooloo yi nag wuti mbooloo mu nekk am kilifa waaye moom kilifa mbooloo mu nekk kilifa genn la war a doon ndax suñu borom wax ci alxuraan ne bu fekkonte ne ñaari kilifa dañoo ko am ci ko asamaan kon lépp yàqu ndax danañ xëccoo te bu ñu xëccoo lépp yàqu kon nag mësuñoo gis ci àddina ci li xam ci histoire mbooloo moo xam ne ni ma ngay dox te ñu dëkk ci xëccoo ak yàqalante ak mbañante ba noppi di dox loolu mësuñ koo gis fenn ba axir daxwaana an alhamdulilahi rabbil alamin asalaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatuhu jërëjëf sëriñ Fallou Boussa Hassane yaakaar naa mboolem ñu doon topp waxtaan wi tey xam nañ ne tomb bi ñu doon waxtaane tomb boo xam ne jamono laaj na ko te yitteel na li koy wone rek mooy teewlu gi nga xam ne mbooloo mi teew ci jumaa ji ñu ngi ko doon teewlu tomb bi bu baax a baax te jàpp naa ne liñ fi li fi sëriñ Fallou leeral yépp jàpp nañ ko ñu ngi lay sant bu baax a baax di la gërëm euh, tomb bi nga xam ne moom lañ doon waxtaane te mooy kilifteef ci ni mu ko leerale ci njëlbeen bi xeeti kilifteef yi nga xam ne moo am te buñ ko te ni ko leerale muy ñaar muy kilifteef ci lislaam ak kilifteef ci wàllu àddina te mu wax ne boo ko xoolee daanaka yépp benn la ni ko lislaam rëdde buñ ko toppee tam noon la ko àddina di soxlaa wax na itam ne kilifteef daa doon loo xam ne mënta ñàkk ngir kaaraange ak dal am faw mbolo mu meuna don dañuy am kilifa gu len jiite lolou leral nako waxna itam tisla yi nga xamne ne kilifteef war nako am te ba ci njëkk moy liñuy wax al kafaa moy compétence moy liñ koy bëgg a yan na fekk mu man ko gaddu na fekk mu man ko gaddu am ci experience am xibraat mana diriger mbolo mi lolou lu am solo la euh li wolof di wax naan mbir mu mën a doon bu ko jox sa waay waaye jox ko waayam mooy kilifa dafa war a am compétence waaye itam dafa war a wóor dafa war a doon ku wóor ndax wax na ne nguur mën naa doon nguuru kéefar yàgg lool waaye mënta doon nguur gu àndut ak maandu di yàgg ndax bu maandute amul ca kilifa gi rek bu yàggee askan wa mu jiitu wa mu jiite dañuy fippu loolu sëriñ bi leeral na ko war na itam ne kilifa gi war naa doon boroom gis-gis bu leer war naa doon koo xam ne ay cëram dafa mucc ci melokaanu kilifa gi war naa doon koo xam ne borom cër yu mucc lay doon war naa am gis-gis bu leer war a am dégg gu set war a am itam làmmiñ wu leer woo xam ne dana mën a wax ak askan wi war naa doon itam koo xam ne borom kàttan lay doon saa yu bëggee jóg-jóg loolu itam am na solo sëñ Fallou leeral na ko ci biir waxtaan wi war naa doon itam boroom gis-gis bu xóot boo xam ne ay ambition yu kawe yu sori lay am gis-gisam wërta yam rek fu gàtt foo xam ne euh, du mën a jariñ ñamu jiite dëgg-dëgg war naa am gis-gis bu xóot gis-gis bu sori waaye itam war naa doon koo xam ne day nangoo lor boppam ngir jariñ askanam di lu am solo loo xam ne kilifa yu bari war nañ ko bàyyi xel euh, war naa doon koo xam ne itam saa yu askan wi nekkee ci njàqare bu ñu geesoo gis ko te it mu leen di fegal ay noon noon bu bëgg a jëm si ci ñoom mu fegal leen ko taxaw défendre nga xam ne bu doon réew dañuy wax ne kilifa gi day défendre réew mi maanaam souveraineté bi nga xam ne réew mi am na ko daf ko war a sàmm waaye itam sëñ Fallou leeral na ci biir waxtaan wi warteef yi nga xam ne kilifa war na ko am moo xam kilifa ci lislaam la wala kilifa ci àddina gum ci mën a doon bu dee ci lislaam moom dafa war a sàmm diine ji dafa war a sàmm lislaam bu baax bu doon ci kilifa àdduna gi daanaka benn taxawaay bi lay doon moom itam charte yi nga xam ne moo ko tënk bu doon ci réew moo xam ne république la ñaan constitution bi war na ko sàmm bu baax war koo bàyyi xel lépp loo xam ne constitution bi daf koy tere loola daf koo war di moytu war na itam koo xam ne day rëdd li ñuy wax planifier ay ay ay mbiram lu mu bëgg a def daf koy planifier ba mu leer ba nga xam ne fam cay jaar dana ko xam du am benn njuumte wala boog du bari bokk na ci melokaan yi nga xam ne kilifa itam war na ko am te sëñ Fallou leeral ko mooy war naa xër ci jéem a def liggéey bi ñu ko sant war naa xër ci jéem a def liggéey bi ko sant ànd ak sellal ànd ak sellal te bañ cee gis boppam dañ cee gis boppam ndax wax na ko kilifa yu baree bari ju baree bari bu ñu leen di fal bu ñuy wut danañ nooy lool waaye bis bu ñu faloo rek dañuy daal di fàttale leen faloon jàpp ne seen jàmbaarug bopp la wala seen liggéeyug ndey la waaye itam warut gis ne moo moo gën ñi mu jiite jiite taxu fee gën loolu leeral na ko ci xitaabu Abu Bakrin Sadiq bi nga xam ne defoon na ko bi fi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jógee te mu wax na yéen ñi da ngeen xam ne dama leen a jiite waaye gënuma leen ayuha nnaas qad wullitu aleykum walastu bi xayrikum gënuma leen loolu sëñ Fallou leeral na ko ci biir waxtaan wi muy lu am solo boo xam loo xam ne kilifa yu bari war nañ koo bàyyi xel waaye itam war naa doon koo xam ne kuy diisoo ak aw askanam la wala boog ñamu tànn jàpp ne daa war a diisoo ak ñoom ci biir askan wi te buñ ko joxee gis-gis boo xam ne bu leer la mu jël ko te jëfe ko waaye itam war naa doon koo xam ne day boole nooy ak tar wërta dëgër ba ëpp waaye wërta nooy itam ba ëpp te mu joxe woon ci euh, taxawaayu gis-gisu Muawiya boobu mu wax ne sama digganteeg nit ñi bu fekkoon ak wëñ moo ci dox du dagg ndax buñ ko ñoddee ma teenga ma ma ma yolamal bu ñu bu ñu bu ñu ma ñoddi kon du gaaw a dagg loolu leeral na ko leeral itam ci lu luñ mën a jariñoo ci tomb boobu muy ndénkaane li nga xam ne maamam ju baax ja sëriñ Mbàkke Buso dénkoon na ko Ngalandu Juuf muy ndénkaane boo xam ne ni mu ko waxee dafa dafa mel ne sëriñ Mbàkke bi mu koy bi muy wax ak moom suñu borom mooy wax ak moom muy ndénkaane boo xam ne ëmb na ay njariñ yu baree baree bare euh, muy loo xam ne kilifa yi war nañ ko bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax leeral na itam àq yi nga xam ne war na ci ñi nga xam ne ñoom la jiite ñu ñu di ko jox ki leen jiite di ko jox kilifa gi di ko jox ay àqam ba ca njëkk mooy topp ko topp ko kilifa buñ ko xasee ba fal dañ koo war a topp donte ma ngay def ay njuumte te aggut ci benn dayo bi waru wërta tax ñuy mooy ay ndigalam waaye itam di ko jox ay seeni xalaat di ko jox ay xalaat yu sell yoo xam ne dana ko mën a jëfe kilifa itam waree su waree su waree wax rek loo xam ne sa nit waru ko wax rek loo xam ne njariñul boppam dong la njariñul askan wi nekkuñu ca lépp ci boppam lay am war nañ di ko laabire saa su ne te laabire gi mu am uh, aw doxin nuñ ko nuñ koy laabire am nuñ ko koy laabire wares na koo déglu di ko topp di wattandiku nag li ñuy wax fippu di ko faral di def ci kilifa ndax léeg-léegi nee na fipp danay faral di am te kañ fay indi sax mooy yées kañ fay jële loolu leeral na ko ci réew yu baree baree bare joxe na ci ay misaal ci réew yu baree bare yoo xamante ni lu mel noonu am na fa fipp nañ ba jële fa ña fa nekkoon waaye mujj nañ sax yàq dëkk ba ba nga xam ne mëneesatu faa jaamu yàlla amatul kaaraange ci tiitaange lañ dëkk subaak ngoon loolu lu mat a lu mat a moytu la waaye itam xam la ne ñàkk kilifa mbooloo mu amul kilifa mbooloo ma du doon mbooloo mu nasu mbooloo mu tasaaroo la doon fu nekk dara jëm fa fu nekk dara jëm fa kilifa googu itam war na jëflanteeg nit ñi ci ak nooy bañ a jëflanteeg ñoom ci di leen jéem a bës saa su nekk di jéem a bës seen bët jamono bu ne ndax wax na ne kat doomu aadama soo ko xeebee mu yab la te koo cof mu mu wadd loolu kilifa yi war nañ koo bàyyi xel

daje fa ak njitu rew bu Sénégal bu jëk ba muy sangor néna bi sangor déggé né sérigne malik Bassine mi ngi fofu mu ñëw ci mom né ko sérigne bi dama ñëw di la ziar ci dégg né kilifa gu bax nga ma nekkoon ci yoonu politique di wut rew mi nak bëggoon nga ñaanal ma néna sérigne malik Bassine né ko bala mala ñaanal de dina la yé té dénk la dog la ñaanal nee sangor nako bismillah munako ne ko jëk wax moy na nga xamne fa nga juddoo sa nday ak sa baay gënuñu fa fa nga doon jàng itam rawoo fa loolu day ci li waxon ca xitaab ba te sëriñ buso dénkoon ko ngalandu na nga xamne fa nga doon fa nga juddoo sa nday ak sa baay gënuñu fa waaye fa nga doon jàng it rawoo fa kon yàlla la neex rek mu mu mu mu fal la yàlla la soob mu fal la ah, ma yëgal la ne kuy dagu kuy dagu mooy kuy wut réew mi wala kuy wut benn poste nee nag kuy dagu te luñ ko digal mu def ko dina falu waaye ku falu te luñ ko tere mu bàyyi ko du folli ko loolu di wax ju am solo kuy wut te luñ ko digal mu def ko dina falu ku falu itam te luñ ko tere mu bàyyi ko du folli ko te na doon te na nga doon dagoo ba falu soo ko bàyyiwut dangay ngay gën a falu na doon wute ba falu soo ko bàyyiwut da ngay gën a falu loolu mooy li ñu li sëriñ bi leeral léegi sëriñ Fallou leeral léegi ci nañu baree bari bu ñuy wut danañ nooy wàcc seen bopp waaye bu ñu demee ba am dootuñu uh, faale askan wi dootuñu leen bàyyi xel dañuy fàtte askan wañ wañ jóge woon loolu la ko wax tekki ne ko mbaa soo faloo mbaa soo faloo doo jàppe nit ñi ay mbaam mais mu ne ko déedéet Senghor ne ko déedéet mu ne ko soo ko defee yàlla dalay teggi teg fi suuf teg keneen mu boole la ak ñoom war yàlla dalay teggi teg ci suuf teg keneen mu boole la ñoom war loolu la ko loolu la ko sëriñ Malick Bassine wax daal ne ko nag ñiy faloo fiy jóge waaye ñiy fale moom duñ fi jóge ngir lu baadoo la gàtt gàtt ab nopp nangami buur walla lu baadoo la gàtt gàtt aw fan nangami boor nangami buur yilif ko nangami buur yilif ko loolu mooy na xam ne itam boo fi jógeet keneen a fi keneen a fi ñëw te yow it njëkkoo fi ñeneen nga fi ñeneen nga fi keneen nga fi wuutu loolu kon di ndénkaane boo xam ne mbooleem ñi nga xam ne dañoo jiite ay mbooloo moo xam ay réew la moo xam association moo xam daayira moo xam mbooloo mu mën a doon war nañ koo bàyyi xel bu baax a baax a baax kon daal am solo waxtaan wi foo ko takk weesu na ko yaakaar naa ñi ko doon topp ñëpp jëriñu nañ ci tey bu baax a baax njëriñ yoo xam ne danañ ko bàyyi xel mën naa doon bind boo xam ne mën nañ koo jàngat nafar ko ba weer wii déwén insha allahu taala doon na itam tomb boo xam ne euh, ñi nga xam ne yor réew mi itam war nañ di ci farlu bu baax di di ci yee nit ñi waaye itam di ci yee seen bopp di ci yee seen bopp ndax tomb la boo xam ne liñ fi waxtaane kuy jiite mbooloo wala réew di ko bàyyi xel yaakaar naa ne da nga yàgg ci pal gi te askan wala faloon duñ la jëpp kon sëñ Fallou ñu ngi lay sant bu baax a baax ci turu daairatu muqaddamatul xidma di la gërëm bu baax a baax ci taxawaay bi ak euh, nangu geeg euh, yaatal gi ak tasaare gi ngay tasaare xam-xam di ñaan suñu borom subhaanahu wa taala mu guddal sa fante yokk sa xam-xam di gërëm mboolem ñu ngi doon topp ci rajo yi ak télévision yi fu ñu mën a nekk di gërëm mboolem ñi nga xamante ni tam ñoo teewoon ci jumaa ji ngir teewee waxtaan wi di leen fàttali rek jataayub suba bi moom fatwa lay doon muy laaj ak i tontu ñu war cee ànd ak al euh, mufti Serigne Mbacke Abdourahman moo ñu ko war a defal bu euh, bu ñu julee tàkkusaan ba noppi ci barab bi kon ñu ngi leen di jox daje suba jàmm incha allah wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.